waaw waaw jaaj ok jaajëf affiche bi doole naa la ko mu ngi noonu ok jaajëf oui salaamaaleykum gaañ ñi na ngeen def waay ça va euh, salaamaaleykum salaamaaleykum donc euh, Dabakh Malick Patriot TV yéen ñëpp ñu ngi leen di nuyu ku ci nekk ci turam ak santam di leen ziar di leen seen wàccuwaay di leen ñaanal jàmm di ko sàkku ci yéen Euh, di nuyu sénégalais yépp ñi nekk ci diaspora bi ak ñi nekk ci réew mi ñu ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm di rafetlu seen taxawaay di leen ñaanal jàmm di ko sàkku ci yéen euh, di nuyu sympathisants yi ak bépp auditeur ak auditrice bi nga xam ne yaa ngi seetaan émission bi ñi ngi leen di nuyu di leen ñaan ngeen abonné le maximum possible ci chaîne bi ngeen dooleel chaîne bi ñu continuer combat bi euh, di ñaanal sénégalais de l'extérieur di rafetlu seen taxawaay. di leen masaw ci coono bi aussi tamit euh, di leen ñaanal jàmm di ko sàkku ci ñoom du wax ne aussi nañ taxaw ci combat bi parce que combat bi dafa war laaj ak moyen ok ñu ngi nuy Sénégal yi nekk ci réew ma di leen ñaanal jàmm ñoom ñëpp di ko sàkku ci ñoom di leen ñaanal maladie nekk hôpital tëdd hôpital yal na leen yàlla may wér-gu-yaram ah ñu jóg ñibbi seen kër ñi nekk ci hôpital ak ñi nekk ci kër yi ñi nga xam ne caabi féetale leen gannaaw te ñu tëj leen arbitrairement di ci jaay doole ak ñi nga xam ne dañoo faxastalu bay am jafe-jafe ak yoon ñu tëj leen ñu ñaan yàlla yalla na leen yàlla tijji donc euh, di jënd ñibbi seen kër nekk ci jàmm di ñaanal patriotes yëpp ak sénégalais yëpp ak képp ku taxaw di xeex pour dëgg am Sénégal ñu ngi lay ñaanal jàmm ak wér gu yaram di rafetlu taxawaay suñu kilifa diine su ma nee kilifa diine yi mooy ña nga xam ne ñoo yëkkati seen kàddu ñoo faral di yëkkati seen kàddu di wax ci ñaaw ñaawteef bi nga xam ne moo am Sénégal di xeex fen ngir dëkk taxaw ñooñu laay wax waxuma sëriñ tarixa yi de ah non non man moom samay man samay kilifa diine mooy ñi ngi yëkkati seen kàddu même sëriñ daara sax taxu ay taxawaay kilifa diine moom ñoom ñooñu samay kilifa de man waxuma ñi borom tarixa yi waxuma ak ñoom borom set set yi quoi c'est lobbying la waxuma ak ñoom donc ñooñu ñëpp ñu ngi leen di ñaanal jàmm di ko sàkku ci yéen ñoom yal na yàlla dëgëral seen taxawaay yéen ñëpp sénégalais yi di wax patriote yi ne leen bu leen décourager parce que nous sommes sur la bonne voie ñi ngi ci xeex bi te destin destin wu nit ak le destin d'un peuple et le destin d'une personne et d'un pays seul Dieu Allah subhanahu wa taala rek moo ko mën a soppi benn doomu aadama ci kaw suuf mënul soppi destin wu doomu aadama lépp li nga war a am ci kaw suuf sa biir dund da nga koy téye mu neex mu métti mu naxari mu métti mu nooy mu bañ a métti da koy jot parce que li yàlla mooñaale doomu aadama bi la son destin moo taxit ku ci àndul da ngay sonn rek te tey la ñu gis mooy <laughs> eh, eh, la ñu gis mooy ñiy weddi yàlla bañ a gëm ndogalu borom bi ci li nga xamne mo moo di xew ci senegal te dugguleet donc euh, ñooñu ñëpp dañuy sonn rek parce que destinu nit yàlla ba muy tabax doomu adama ken fekkew ko lam mu def ci mom ba mu koy def ken fekkew ko ruux ba mu dugal ci mom ken fekkew comme mom rek wa bu ne kun mu nekk moy kun fayakun motax doomu adama bépp doomu adama lépp loo sëq ak sa moroom doomu aadama danga koy teg ci respe teg ko ci cër ngeen joxante cër ngeen joxante respe ku ci nekk fonk sa moroom ku ci nekk taxaw ci tànku dëgg bañ a andi tànku sikk sàkk bañ a andi tànku yabelel te xam ne dëgg rek mooy mujj mu taxaw ci dëgg même li ngeen di nas boo ko tegulee ci dëgg teguleen ko ci yoon du sotti moo tax it ñu bëri ñu ngi sonn Euh, di sant président Ousmane Sonko du ko félicité ko ñaanal yalla ci combat bu mu nekk y a na ci gënal taxaw té gis nañu engagement am na ci réew mi ak bëgg réew mi ak respecter sénégalais ak bëgg Sénégal ak bëgg sénégalais ak di xex ngir réew fa mu mu matin midi soir donc le rek rek rek rek warna

mooy ñi nga xam ne bë ñiy bëgg l'axe du bien mooy ñiy bëgg alal réew mi des ci biir Sénégal ñu transformer ko ci biir Sénégal mu njëriñ Sénégal ak sénégal yi ba Sénégalais bu nekk gis ci boppam ah kay mën na nekk la ñu bëgg mooy l'axe du bien nga xam ne lu muy xeex mooy lépp li xam ne lu baax ci réew ak luy baax ci dundin doomu aadama ak lu doomu aadama soxla ci dundin mu mën koo am ci biir Sénégal ba xale yi du ñu jënd dem taxawalu ci àll bi ñuy dee ci géej gi wala ci désert bi axam mën na ne yor nañu alal bu ko bon def lañu bëgg mooy l'axe du bien lu muy xeex mooy bépp citoyen sénégalais bu nekk si biir réew mi moo xam am nga xëy am nga liggéey wala amoo liggéey weer bu bu nekk quatre cent mille francs CFA dugg sa compte ah mën na nekk am na ñooñu ñoo jàkkaarloo ak ñi nga xam ne mooy l'axe du mal mooy kuréel bu bon bu soxor boo bu ne déedéet alalu réew mi doomu sénégalais yi duñ ko njëriñoo alal réew mi du njëriñu Sénégal ak sénégalais yi alal réew mi tubaab bi nasaraan bi moo koy jël dañ koy jox ba mu jaral la rey ay bakkan di faat ay bakkan waaye l'axe du mal mooy axe bu bon boobu ña tënk bëri na politiciens yi ñu ngi ci biir. magistrat yi ak procureur yi ak juge yi ñu ngi ci biir avocat yi ñu ngi ci biir militants yi ngi ci biir journalistes yi bon yi ngi ci biir patron de presse yi ñu ngi ci l'axe du mal chef d'entreprise yi ñu ngi ci l'axe du mal parce que ñoom duñu ñu bugg mukk dëgg am parce que marché yi ñu leen di jox gré à gré ruubandaat ak yooyu dugal bopp ci tànk ak les dossiers de table ak yooyu ñu ngi ci biir mais kilifa diine yi ñu ngi ci biir ci l'axe du mal loolu lañ gis Sénégal mu nekk kenn mënu ko werante mi ngi fi parce que dëgg nañ métti rek dîner, ko wax kilifa diine yi euh, kilifa jamono kilifa lobby yi laa astafurlah kilifa diine mooy ñi nga xam ne ñoo yëkkati seen kàddu <laughs> ñoom dramé ak ñooñu di wax <laughs> mais kilifa tarixa yi laa wax lobby yi ñi ngi ci biir mafia bi l'axe du mal ay militants ay étudiants ay ndaw yoo xam ne yeewuñu dara ngi ci biir ay les chroniqueurs, les chroniqueur journaliste un de presse les policiers les gendarmes, gendarme militaires ils ngi l'axe du mal Nous ñooñu un cocktail de cocktail molotov bo bon bu salté bu yes bu bi nga yalla ko bi l'islam moy l'axe du mal ñooñu ñooy xeex ak ñi nga l'axe du bien ñi Sénégal jam ñi bëgg Sénégal gëm Sénégal fonk Sénégal ñi taxaw di xex fen pour dëgg taxaw ña nga dëgg joxé dañ koy wax amul fenn fu par parlo dañuy jaar ci dëgg bi wax leen dëgg ak ku mu doon l'axe du bien moy ñi nga xam am nañu ci Sénégalais mais am na ñi ñoo am philosophie liggéey ñak njëriñu jëf jël ñak njëriñu ndimbal ak yërmande mooy l'axe du bien di qui ci fekk nag ñëpp di ci fekk militaire bi di ci fekk policier bi ci fekk gendarme bi di ci fekk waaw sëriñ bi di ci fekk talibé bi di ci fekk étudiant bi di ci fekk intellectuel bi di ci fekk di ci fekk di ci fekk ñooñu ñaari camp ñoo nekk di Sénégal ni l'axe du bon bu bon bi la mooy yéeféer yeeg l'axe du mal di bëgg ça saaxi alal réew mi toog muy dox ñoom ñi am ay pots de vin jël alal bi jébbal ko tubaab bi ba pare ñoom ñi am liñ ci am astut bu ko séddoo ak ñi nekk ci suuf ñeneen ñi taxaw xeex du am oui para Israel e Jerusalém. Uhum. Porque ele se amou. Bate, valeu. Hum. Dá para eu voltar na boca lá, Ok. Mas eu vou na boca.

Ok. D'accord, tu kanam après naa la voilà donc mu nek, ñi nga xam ne ñooñu rek ñoo nekk di xeex ci Sénégal tey loolu moo andi li nga xam ne li ñuy dund ci Sénégal mu l'axe du mal ni ray, rek di assassiné depuis février mois de février mois de mars plégué ni ñu ngi sénégalais def crime économique crime humain pour ray sénégalais pour mën continuer di faire togal tout bi nasaraan bi mu am l'axe du bien bañkat yi ñu taxaw moo tax patriotes yëpp ñu ngi leen di féliciter di rafetlu seen bi le combat continue waxoon naa l'an ko fi ci sama yeneen vidéo ma ne leen dinañu def lu pour nit ñi ragal ñi bàyyi leen ñoom ñi def lu neex lu leen neex mais kenn du fi ragal da nañu continuer di porter combat bi ak résistance félicitations sénégalais yi réew bu nekké ci ci ci biir guuta wa réew ma ñoo koy merci ci sen taxaway di leen wax ne li ngeen gis nonu yëpp li ko lal moy ragal rek parce que gestion fouki attaque ñaar nga yoru ci réew amo lay def luddul ray rey réew mi di sàcc alal réew mi di fen wax na le régime bi fen rek Macky Sall fen rek motax fañu dem am gatch fépp fu mu dugg rek am defet ñu toroxal ko fu mu dugg dañ koy toroxal fu mu dugg ñu toroxal ko sur le plan national sur le plan international dañ koy humilier fu mu dugg amatul crédible Macron beaucoup ci de temps affaire Ousmane affaire sénégalais dictature parce que Macron tamit Joe Biden na ci ay 18 ans, mais ko Macron raccroché il est en mauvaise posture parce que dara américain ci li nek li nga xamne mom la Macky Sall di doxal ci bir Sénégal té té américain dofuñu parce que xamnañu position Sénégal géographiquement France bu jappé ni mom rek mo am intérêt fofu non non non parce que américain dofuñu am nañu lecture de la situation géopolitique américain am nañu lecture bo boo gisee bu ñu taxaw Niger gawontu nommé fofu ben ben ambassade te fekk ñom base rek lañu am té base bobu dañ ko luwe wér at bu nek dañuy fay ñi gaawantu ci jamono bi nga xamné ñu ngi but site France mu joggé fofu mom mu gaaw dem nommé ambassadeur mom Amérique États-Unis té ko fa français di yuxu diko dénoncer parce que ñom xam nañu américain ñi ngi xam nañu xel ni Poutine dana dugg te Poutine dugg na parce que Wagner dugg na ci xex bi Wagner dugg na donc américain ñom xam nañu Niger ci loxo Poutine lay mujjé Poutine dugg si na donc te Poutine dugg si na américain am nañu même intention pour Sénégal parce que xam nañu bët Sénégal Poutine dina fa dugg waaw dina dugg kay parce que mu ngi ci buntu Sénégal Mali. donc motax ñom dankafu nañu Macron rapidement jëm ko xamal ni Pastef mu tas injustice la ko teg tegu ko fen ci dictature la ak na bàyyi sénégalais yu muy tëj di rey te Américains ba une ngi enquête te gisuñu enquête te américain def enquête ci assassinat mois de mars le département d'état américain def enquête union européenne enquête Macron yor na ko moom donc angle bi Macron récemment ah, dossier bi nga gis ni du Ousmane arrestation parce que américain dañ ko né élection mënul am Sénégal té Ousmane du ci bok lu leer la ko américain yi wax élection mënul am Sénégal té Ousmane du ci bok le leader de l'opposition du ci bok mën ne té nak bu ko dara dal parce que ñi ngi leen di xool ma Macky Sall xam na bu baax li yow yéen wa APR yéen xamul toog di yuuxu di ratatati mais Macky Sall bi nga xam moy ndey mbill bi mom xam na fu mu toog bu toogee du poup moom xam na lu koy xaar muy benn ñaar ñuy félicité avocat yi avocat Ousmane yi nga xam ne tey dem nañu ONU droit de l'homme des Nations Unies dem yóbbu fa seen dossier plaidé ko foofu ba ñu jënnee joxe nañ seen xalaat wax nañu seen xalaat lépp naka nan la ak li xew Sénégal yépp déposé ko te mu nekk euh, franchement li nga xam ne ñu ngi koy rafetlu euh, rafetulu boo bo ne bu mucc ay ñom ñi ngi liggéey liggéey bu mucc mom euh avocat yi parce que lañu bëgg moy c'est très important euh euh waaw waaw waaw Aladji rafet may ma rek may ma dinaa la jël Aladji rafet dina la jël may ma rek waaw may ma alaaji rafet may ma may ma may ma waaw xam naa yaram moom yaram bi dafa tàng quoi أه، دينا لا جيل على جيل رفيت ماي مريك وا ا أه، نين دغلو ني دغلو توتي ولا أه، داكور خالن دونك ني دوغل كو Mm-hmm. Comme ça. Hein? Mmh. Voilà. Mmh. Vous connaissez. Donc, euh, dañu commencer par. Euh, Monsieur Babacar Fall nga xam ne moom moo moo initiative bi euh, quelques mots en Wolof, juste à l'adresse du peuple sénégalais par rapport à la mission que vous venez d'accomplir. Oui, donc, euh, vais commencer par euh, féliciter le travail. Nous sommes avocats pour défendre la cause du Sénégal aux oreilles des autorités de cette institution. Légui, euh, nous, li ñu mën a def ñun nous, nekk ci diaspora bi ba lépp Sénégal ci ñaawteef àdduna bi foofu lañ juddoo ñu ngi dëkk ci diaspora bi mais ngi def pour que suñu dëkk un pays libre mm-hmm. Mais rappeler que le premier président je le dis en français pour que ce soit bien compris le premier président dans le monde qui a quitté le pouvoir par lui-même sans contrainte était un Sénégalais Léopold Senghor sans contrainte il a quitté les lieux par lui-même par son intelligence après avoir amené des générations vers l'école mm-hmm. c'est là son ambition et parce qu'il on ne peut pas le taxer c'est quelqu'un qu'on ne peut pas taxer d'avoir pris quoi que ce soit pas un centime des caisses de l'État mm. il n'a aucun bien mobilier ou immobilier dans la diaspora mobilier ou immobilier dans la diaspora il a été serein donc on demande mm-hmm. qu'il se réfère à son attitude de sagesse voilà on ne peut pas continuer à fermer euh, l'expression mm-hmm. de tout un peuple par la répression. Mm-hmm. Non, il faut discuter, mm-hmm. être intelligent, savoir quitter les lieux avant, que, avant de se retrouver en situation de fuite. Parce que souvent, les dictateurs finissent par fuir. Par Et ceux qui vous disent qu'ils vous soutiennent, à ce moment-là, ils ne vous reconnaîtront plus. Bah, les Donc, il faut partir mhm. sereinement, avec grandeur. Merci beaucoup. Eu l'opportunité de, rencontrer des responsables du Haut Commissariat aux droits de l'homme mhm. pour euh, leur, faire connaître euh, les derniers événements qui touchent euh, <laughs> en particulier, mais plus largement l'ensemble des militants politiques qui euh, sont euh, détenus ou réprimés arbitrairement dans des conditions particulièrement graves, que ce soit des, aigus, euh, des avocats, des journalistes, de simples citoyens qui, à Rebus et ailleurs, sont dans des circonstances qui sont inacceptables. Donc, on a parlé évidemment de la situation et, mon confrère Darifou, un confrère Darifou a commencé par présenter la situation Ousmane Sonko, l'urgence absolue à laquelle il est confronté et la nécessité d'intervenir auprès des autorités pour mettre fin à cette euh, persécution inacceptable. Et on a euh, détaillé l'ensemble des autres éléments. Il faut rappeler que le commissaire aux droits de l'homme s'était exprimé sur la situation des Sénégalaises déjà, ce qui est un fait particulièrement rare et, euh, ce qui avait provoqué l'embarras des autorités sénégalaises. Et nous avons demandé de, de s'intéresser plus en profondeur à tout l'aspect caché des violences politiques qui sont actuellement en cours au Sénégal. Parce que, comme vous le savez, le Sénégal a toujours été un exemple en termes de droits de l'homme et d'état de droit, et a montré euh, euh, une forme de, puissance qui, euh, qui fait qu'il est difficile d'ajuster les perceptions et, et, de se rendre compte qu'en fait cet état qui a été magnifique, qui a été à ce point admiré et loué, se soit en si peu de temps transformé en une prison assez ouverte pour tous ceux qui s'engageaient sur la voie d'un changement engagé, sur la voie d'un changement démocratique, comme le fait le PASTEF. Donc euh, on est à six mois d'une élection qui est fondamentale pour euh, non seulement Sénégal, et c'est aussi un des points qu'on a abordé, pour la sous-région euh, dans son ensemble, pour la stabilité du continent africain et, ses rapports avec, l'Union européenne. Il y a des enjeux très importants à tout niveau, y compris migratoires, y compris en termes de terrorisme qui sont migratoires, y compris en termes de terrorisme qui sont charriés et qui exigent en fait une forme de stabilité qui ne sera obtenue que si on permet à l'ensemble des candidats légitimes de se présenter, et parmi eux, évidemment, Ousmane Sonko. Et pour qu'il puisse se présenter, il faut qu'il soit libre et il faut qu'il soit vivant. Mhm. Donc, euh, la communauté internationale a une responsabilité à, à dégâts. Vous voulez rajouter quelque chose, même L'essentiel a été dit par mon confrère, mais c'est juste un rappel pour dire que euh, il faut que les autorités sénégalaises sachent que le monde entier à fixer son regard sur le Sénégal mhm. Mhm. et que rien ne sera impuni. Rien ne sera impuni. En qualité d'avocat, nous ferons tout ce qu'il faut. Nous utiliserons tous les instruments juridiques et diplomatiques qui sont à notre disposition pour mettre fin à, ces pratiques dignes d'une république euh, bananière. Mhm. Et le Sénégal ne mérite pas mm. euh, ce qui se passe en ce moment. Et moi, j'ai toujours l'habitude, j'ai pris l'habitude de souligner qu'il y a un héritage démocratique euh, par les pères fondateurs de ce grand pays. Mm. Et ceux qui sont là ne sont pas dignes de cet héritage. Mm. Je le dis avec fermeté, puisqu'ils sont en train de détruire ce qui a été laissé au lieu de reprendre le flambeau et se mettre à la hauteur de ceux qui ont bâti ce grand pays. Ils sont en train de le détruire. Nous avons pour mission, en qualité d'avocat, d'utiliser tous les moyens juridiques et diplomatiques qui sont à notre disposition. Les instruments existent. Et c'est pour cette raison que le travail au niveau international doit être euh, très intense Ici, on a commencé ici aujourd'hui, mais nous irons dans d'autres lieux très prochainement, très très très prochainement. Euh, comme ça, ils seront, l'impunité, zéro, c'est fini. c'est fini. donc, nous savons que les organes, je l'ai dit avec euh, fermeté, euh, les organes judiciaires, les organes exécutifs et militaires de l'État de Sénégal sont devenus des instruments de répression ça, c'est inacceptable. Et l'État de Sénégal assumera ses responsabilités. Hmm. Et bon, nous sommes là pour activer justement tous les mécanismes juridiques et diplomatiques, que cela soit une réalité et très prochainement, hmm. Donc, euh, mon avocat, euh, donc euh, Ousmane, demoon euh, banxaasu ak yeleef doomu aadama yi nga xam ne mooy Nations Unies dem yóbbu fa la ñu fay yóbbu dégg ngeen ñoom ñoo doon wax noonu donc mu nekk ñi nga xam ne ñëpp ngi tey ci combat donc te lii nga xam ne moom moo nekk di xew senegal amul kenn koo xam ne ku jub jub nga ragal nga yàlla te condamné loo ko mais dafa fekk rek ñi ne pas pataaral muy sëriñ si la waxal sëriñ si ñi sëriñ si soi-disant euh, euh, euh, comment dire ça sëriñ tarixa yi ñi nga xam ne ñoom lobbying les lobbying là c'est sept là ñi nga xam ne ñoo ñëkk trahir askanu Sénégal trahir l'islam trahir diin seen maam yi li ñu taxawaay gi bañ bañu déporter déporté ñi bañ bañu ñu delloosi ñom ñoko ñoo ko trahir ñoom lu ne fang kenn du ko weddal ci ko werante sen talibé bu ñu neexee ñi mer ku ci mer na nga dem tabax ci jaww ji wala nga tabax ci kaw ndox mi ci kaw géej donc li xew Sénégal ñëpp gis nañ ko té la ci kanam raw li bët moo ñi toog di jibile vous n'avez rien compris mais Macky Sall moom xam na lu koy xaar ak autorité Macky ak ñi ànd ak Macky Sall xam nañ li ñuy xaar xam nañ fan lañ jëm ak ñoom waaw fan la jëm xam nañ ko lii fi xew Sénégal yëpp ñiy dox yëpp ñëpp ñi nga xam ne ñoom ñoo xeex sénégal yi complot contre Sénégal ak sénégalais yi parce que comploter contre Ousmane. mais comploté contre sénégalais ak sénégalais ak séy rawati nag ci portable Marème Faye sal boobu réer def toj-toj bi la nekk ci biir yëpp ñoom ñëpp nga ci biir sëriñ si tout le monde kile jëlee ko Touba Tiwaawan Kaolack Yoff ñëpp a ngi ci portable bi ñoom ñëpp ñoom ñëpp contre Ousmane ñoom ñëpp a ko complot ci biir portable moo tax ñi ngi xaru pour portable bi bu mu génn bu mu wax portable bi dana wax wallahi portable bi dana wax waaw ñoom ñëpp tout le monde képp ku ci ŋàng sa baat li nga wax teg ko ci deru Ousmane complot ak yëpp mu ngi ci portable bi ñoom bokk nañ ci njiitu tarixa yi toog ne faax ni dëmm ci kaw sénégalais yi di muccu deretu sénégalais yi toog muy dox su Macky Sall ñëwee ñu tëju complot sénégalais yi ngunu ngunu ngunu ngunu ngunu ngunu bu gor ñi ñëwé tok ak ñom ñi né fang ci kaw gëmuñu dara amuñu éthique amuñu moral amuñu déontologie gëmuñu nothing no sense gëmuñu ko lañu ñu gëm mooy alal xaalis alal oui je te rappelle je suis en direct Uh-huh. après gëmuñu dara et pourtant boo leen ko waxee ñi dal sa kaw boy ñi saaga serigne si sëriñ si ñoom ñi ngi tuddee serigne ñom ñoo saaga sen bop parce que buñu amone taxaway bi nga xam sen seen taxaway bop lañu boobu la ñu am seen maam yi kenn nga ñu leen loolu rafetlu seen taxawaay ba ci seen bàyyi ñi mujj Dabaax Malick ak Cheikh euh, sëñ euh Dabaax Malick ak sëñ Saliou ñoom ñoo fi mujj seen taxawaay maam yi ñooñu seen taxawaay seen bàyyi taxawaay gi ñu amoon taxawaay googu lañu am ba bi génn àdduna mais lu tax ñoom sët yi amuñu taxawaay boobu et pourquoi ngeen bëgg ñi ñi gis dëgg ñi bàyyi dëgg dem ci fen pour la lu tax pour pourquoi duñ ko def toog muy dox wutuñu yàlla wutuñu yonent bi amuñu benn taxawaay ci diine lislaam seen taxawaay tey ñoom bu Cheikh Ahmad Bamba ñëwoon wala Maodo Malick ñëw wala Limaamu Laay ñëw wala Baye Niass ñëw euh, seen taxawaay ak taxawaay Ousmane Sonko mu sell mi ak sénégalais yi bañ moo leen di gënal fuuf taxawaay ñoom ñoom ñi seen taxawaay ñoom ñi anan keneen ki jabar ji dawul dem ànd ak Marème fay Sall jabar ji xam naka la tudd xaw ma jabaram la sëñ mu taxaa a jabar ji bageew ko foofu mu daw ànd ak ma madame Faye Sall anamu mu ngi daax ba daaxal ma daax dugg naa ndaat na fa ñukk ni yekk mu naxari tey anamu kooku ñooñu toto ji nekk ci portable bi yëpp jabar jaa ngi ci biir ana Bass Abdou Khad moo dàq tux asis fii tatt lay def ni xaj maa ngi koy wax ba léegi di insister xamna na ku ko jaay tat lay def bas abdou khad day mandi tat lay def day tukh pour mo xalen ko bu leer waaw ñom la ay bandi lañu ñoom ñëpp ñu dara fi lañ ko jox 50 hectares mu jaay ko tëdd ci xaalis bi ñu jox ko projet aéroport ndar kan lañ ko jox mom bas abdou khad fan la jëlee milliards yi dafa yore entreprise sàcckat la fenkat soskat tey li dal Touba borom ci bopp ñoom ñëpp boole ko dal da di am courage taxaw wax dëgg te yàlla tax tax am leen courage taxaw wax dëgg te yàlla tax te xam ne seen bàmmeel mu ngi leen di xaar lu yàqu Touba moo ko yàq ñoom te ñoom ñëpp ñoo ko complot ci lan nga dëgg doom yi euh, euh, mu Mountakha bi noonu ne way papa bi yëgul dara mais ay fen la baayam ci complot bi la bokk moo tax ba ñu fëggee Macky Sall ci mois de mars dafa daw si yuuxu parce que ci ci mafia bi la bokk ci l'axe du mal fa la bokk ba ñu ko fëggee rek mu daw si intervenir da ngeen dëgg mu ŋaang fii ñuy rey rek ci ñëpp lii xaw Sénégal ba tey da ngeen dëgg mu taxa ubbi jëmiñam ŋaang wax te ngeen dëgg mu yebal déedéet ñoom ñëpp ñu ngi ne muut parce que seen seen mafia la gan bu toog fii trop c'est trop amul leen lu ñu fi nëbb gan fii ku fi dee ak sa bàmmel man la may wax man ak sama bàmmel la ñoom duñ ko weddi waaw tey preuve moo nga ñaata waa Touba la ñu téye tëj da ngeen ko dëgg mu wax waxut complice le li len intéressé moy milliards magal bi wa ñom ngi ci programme magal. mais watuba, Touba ñi ngi dey ci kasso bi ci ci jaay doole baram ñi fofu ñu jabaram ay doomam gisuñu ko ay dëkkandooram gisuñu ko ay nawleem gisuñu ko kenn lu tax ba dañ ko buñ ko ko jox ko si ay mbokam dem ko mu ok lii moo fi am ñu ne noo kenn du wax parce que boo wax ñu ne noo seriñ si sëriñ amul senegal xam nga kan mooy sëriñ xam nga kan mooy sëriñ kay taxaw di wax dëgg te yàlla tax ñi ngeen di joxoñ naan ay ibaadu rahmaan lañu ay ñe ñooñu ñoo am taxawaay boobu ak ñi yëkkati seen kaddu di wax li yàlla wax ci alquran karim li yàlla tere ak li yàlla li digle li xadis tere ak li yàlla eh, xadis digle nag ban taxawaay lañu war a am ci diine ji ban taxawaay ngeen war am ci société bi ñooñu ñooy sëriñ mais ñi fi nekk ay bandi lañu mafia ñoo comploté Ousmane moo tax ñi ngi xaru lu ne ñu ngi koy def pour portable bi bu mu wax barke salaatul fati si ma téye portable boobu dinaa ko jënne parce que la nekk ci portable bi dafa garaaw ana Mati trois Pommes <laughs> leen non vidéo yi la la Adji ñu rek ñoo ko xam bés bu jëndee anam doomu xaram yooyu lan ngeen jëndee tey le portable la dafa war a jënd wax ah, waaw waaw da ngeen fàtte fii fàtte ngeen fii tatouage yi madame Faye Sali fàtte ngeen tatouage bi xanaa Didier Badji ni ñu ko reyee assassiné ko gendarmerie waxutu Fulbert Sambou armée waxul ken waxul lépp crime yi yëpp ngi ci biir portable bi ma leen wax ni crime yi ñoo xam lu tax ñu jafur dem di persécuter kër Ousmane ku nekk ñu jëndee fetal teg ko waa kër Ousmane portable portable ba dem na ñoom ñëpp ñi ñi woote ñi soi-disant les xalif généraux ñoom ñëpp a ngi ci biir ñoo complot xam nga ni yàlla yàlla yàlla ay mbiram day leer nañ fa portable bu dëkk ci palais ba Marième Faye Sall yor ko muy jaagar-jaagar ci entre Marème Faye Sall Moussa Fall di def ay crime di rey di assassin di filmer ñëw di ko woon Marème Faye Sall di ko woon Macky portable bi di dox di dox di dox di dox ba ñoo daanu ci ci loxo euh, euh, euh, capaculi bi critim ba mu ñoo daanu ci loxo capaculi bi ngeen xam ne yàlla rek mooy buur portable ba jógee palais portable boobu la ñuy filmer seen ñaawteef yépp ci portable boobu la ko filmer même ñoom groupe Marème fay Sall bi seen taatu ne ni ñuy def noonu la ak seen lëf yi ñu tatoué yépp ci portable bi la yéen seen portable bi dafa garaaw ah, ah oui oui oui oui seen clique boobu clique boobu ay boy ndaw ñoo leen di doxaal bandi lañu lépp a ngi ci portable crime nu ñu reyee Didier Didier Badji nu ñu ko assassiné dóor ko acide muy sey tànk yi muy yuuxu yuuxu ba ci ndigg li muy yuuxu ba ci dënn bi ba ñëw ba ci bopp ba mu seey

moo taxit ba co ba portable daal dañu dof ñoom ñëpp dañu dof complètement déjà jeune bip gars daw dugg persécuté loolu yëpp portable ba dem na ñu ne Kirtim Ousmane ne Pape Alé critime pour ñoom jàpp nañu Pape Alé am na données yi <laughs> ñu daw téye Pape Alé critime anam bàyyi ñu Pape Alé Pape Alé lu mu yor boobu bés bu ko bu ko jëndee comme bombe bi la portable du tukki moo laa Morgan tuuti la ci yor mooy lan mooy complot assassinat un salaud. Mais, qui dit Ousmane Kharbi, complot assassinat par empoisonnement Antoine Diom, mission infiltré il poison pour nous c'est c'est salaud. mom Antoine Diom, je suis portable la mais tu ji Bombi, bi tax ñi négocier la Ousmane tontu tu na ko duñ ko du def politique du wax ci après ñu bu ñu bi mu plan pour jënd ko Ousmane Sonko ne leen leen politique bi wax suba ngoon guddi bëccëg duma bouger place Sénégal bi troisièmement Macky a perdu la tas tasul Pastef ñetteel bi yow bu fi dellu soit dafa am ligne rouge que ça soit la dernière fois nga ñëwaat fii ñett cinq du ma signé ben ben kay document duma def ben compromis ak ak régime Macky Sall du signé dara amul liberté professeur amul no fing li la len tegal li la len tegal jamono ji dox na motax ñun dañu wara continuer xex bi legui ci kalam situation bi Macky Sall nek ni inconfortable parce que gannaaw yàlla ak yonent bi Ousmane Sonko moo tax ak patriote yi Macky Sall royaume amul Sénégal de bour Macky Sall Sénégal royaume na ko def mais babu bu ñu tégal ndem ci mois de février mars mars bi mu toftal ko juin ñu téegalaat ndem mu dem taxaw ne xam na ni su yu dekk 4e 3e mandat fi dekk bi tàkk mu waaf waaf teg beneen stratégie mooy naa fexe dëkk bi nekk kawo ñu door état d'urgence couvre-feu élection du am ma toog boobu tamit di déjoué ko moom ngeen gis attentat yi ñuy def seen loi bu ñu wotee assemblée nationale te loi bi kan moo ko dëggal France moo ko defaral loi bi contre le terrorisme ñoom Sarkozy Tony Blair ñoom ñoo ko doon xelal Sarkozy moo mujjee ñëw.

tey ci loolu lañ taxaw moo tax seen mu taxa Mbacké yoo laay waxal mu Mountakha Mbacké ak Bass Abdou Khadre ak ñi fa nekk ak ñooñu yéen am responsabilité boo leen defee bomb foofu yenee ay terroriste lu fa takk yéen a ko rey yow Mountakha ci nga bokk Bass Abdou Khadre ci la bokk Antoine Diome ci la bokk yen seen deal la na toi Touba xam loolu bu leen ëpp bu leen ñàkk fulla ñàkk faydal bu leen nelaw ba ñuy saggan ba ñuy jël seen bakkan ngeen toog di naan waaw sëñ bi deal la ñoom ñëpp ay bandi lañ ma wax leen ko tey ñooñu amuñu yërëmande ci yenn faalewuñu leen ñoom seen xaalis lañu soxla diil ci kaw état bi diil ci kaw sénégalais tey boobu boobu la ñu bëgg a mu kalaate bum ñu ne voilà li ñu leen doon wax terroriste ngi nii élection du am kirtim karang-karang seen loi bi wote nañ ko assemblée sénégalais xool leen ni ñu def waa Touba jël bàyyi faal doomu xaraam yi nga xam ne tekkuñu saram dayam jël leen ñu ñuy dóor Sénégal waa Touba gor jaas yi ay jigéen pour xeesal te ñoom seen mbay mbaali jabaram mu tàgga mu ngi xeesal ba taati xooxo cuy lan ko mu ngi takk mees ànd ak Marème Faye Sall di bur di bumi seen jabar yi ñoom ñëpp seen si seen jabar yëpp ñu ngi xeesal ba ne faax toog ñi leen di toggal ay ganaar dañuy roof ganaar bi ba roof taatu mbindaandu tegal leen ko chambre climatisée auto bu climatisé salon bu climatisé lu neex rek toog muy dox Bamba xamuloon climatisation Maodo xamuloon climatiseur Limaamu xamuloon climatiseur Baay Ñas xamuloon climatiseur ñooñu du ñu tëdd ci kaw lal dañuy defar lal bi ba mu rafet ñu jël kaamil yàlla yi teg ko ci kawam ñoom ñu tëdd ci suuf laaxu daxaar lañ daan lekk di tarbiya di defar jaam yi teg leen ci siraatikal mustaqim parce que kenn amu ci màkkaama yóbbu nit ajana kenn rek la ko yàlla may mooy yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom rek moom rek moom rek yàlla may pour ràmm jaamu àdduna ñoom ñëpp cent vingt quatre mille prophètes yonent la yàlla sax cent vingt quatre mu dëñee ci trois cent treize yónni mais ci cent vingt quatre yi yëpp kenn la ko la ci jox makaama boobu mooy yónni ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam cent vingt quatre mille profet cent vingt trois mille neuf cent quatre vingt dix neuf prophètes kenn amu ci makaama kenn amu ci puissance kenn amu ci sañ-sañ kenn amu ci ndigal kenn amu ci man-man pour raamu benn jaam yonent bi rek la ko jox sallallahu alayhi wa sallam sànga bu tedd na ko say xeet wax ma lan nga soxla ci say xeet mais kooku pour mu mun koo am aussi tamit yónni ci yàlla pour mu mun koo am pour mu mën a am loolu day fekk jaam bi nga liggéey lu mat soixante soixante quinze pour cent nga def ko ci lu baax li ci des mu mun a taxaw ñaan intervention mais nga nekk ci dëkk bi bu boo l'islam bu boo alquran di sàcc di comploter contre say sénégalais di rey sénégalais ñuy toog di xool fu xaalis neex nga nii fu jigéen bu rafet jongama fu mu daagu rek nga ne man la ci man la baaxee euh, limousine bu mool ñu àndil la ko ganaar gu ñu roof ba roof tàcc mi daam ñu tegal la ko nga ne dong ci kaw yore sa kaala yore sa sa kurus taxaw naan la <laughs> allah maam est-ce que mais xoolal da ngeen di nax seen bopp comme jaam yi ku fi liggéeyul yoomal xiyaam dana ne tallal ba nga ne nam sëriñ munu ci dara kenn munu ci même boo liggéeyulee yonent yàlla Muhammad sallallahu du mën a def intervention ku xëyul doo fayee ku weer bu dee yàlla ba muy defar ajjanaama ak safaraam Ken jox ko béton ken jox ko plan ken jox ko gaz ken jox ko dara tous motax ba muy tabax doomu adama ken fekkewul ba muy defar ruux ken fekkewul ba muy jox destin doomu adama ken fekkewul gis ngeen président Ousmane Sonko bu yàlla waxee day jël réew mi barke Nabil Moustapha ken amu ci pexe makkaama pour téye dana ko jël mais bu ne du ko jël ñun ñi ànd ak moom ci dëgg kenn mënu ci dara motax on peut pas changer le destin d'un homme on ne peut pas changer le destin d'un peuple. On ne peut pas changer le destin d'un pays. Coucou, yonenti Yalla Mohamed rek moko am te yonenti bi par pour mu mun mais il na liggéey yo tamit attention Yonenti Yalla Mohamed damm nañu bañ a xeex na ñefe pour samp l'islam faay deug. mu sonn yo nga ne doo sonno nga bëgg a jël taxaw naan ma woy sama baay sa baay fan la fan la toj tojul fenn fenn seen maam yi tojuñu fenn dama bëgg ngeen non ne nem ngeen nekk nit ngeen bàyyi sénégalais ngeen muboo di toroxase fu mu ne ni ñi ngi rey sénégalais di leen tëj yéen a ngi calculer euh, quatre milliards yi magal tubaab bi def nañ trois milliards léegi bii wana ma war la budget bi mun nañ ko teg ci quatre milliards yéen a ngi commencé yu tàkk seen rajo yi kan mooy dof moo fay dem de ngeen Bass Abdou Khadre lu mu ku dee ci yoonu magal àjjana nga jëm <laughs> ok comprendre parce que ñoom <laughs> respecté wuñu leen wallahi teguñu leen ay nit ñoom sen intérêt bopp rek réew mi ku fi nar a falu boo àndul ak Cheikh Amadou Bamba dafa non cest à na ma yàlla baal quoi xam ngeen yéen bu ñu leen waxee dëgg ngeen mer Bamba dafa dumóoyu àdduna dumóoyu politique ñi ngeen wara waxal moy salopard bi tok di tux achiche achiche di doxan ci gali mom Bass Abdou khad ban koku ngeen wara a waxal waay allo salaamaaleykum la waaleykum salaam nuyu na la ñeen yëpp di nuyu sama doon mhm. di matti amax di ko jox sa yéeg waaye bu baax a baax ñëpp ñëpp nuyu naa leen Euh, man dama bëgg sénégalais ñu commencé réfléchir un peu yow sa ndey ak sa bay ñu jur la sa yaay ëmb la neuf mois yeneen saay mu ëpp loolu sonn ci yow mu wasin la du ordonnance du dara lépp sa waajur yi di ko def ci yow mi lay solal di la jox dàll di la jox lépp waxtu jàng jot ñu lay inculquer valeur yu baax nga dem ba màgg nga ne ñooñu valeur yi ñu la jox noonu yëpp ñooñu doyuñu la nga ne yow da ngay dem uti sëriñ day dem nga leen ne jox naa leen sama àddina sama àllaaxira man xam nga lu ma jaaxal loolu mooy saaga nañu seen waajur yi te xamuñu ko. ça veut dire loi vous qui nous avez porté dans le ventre ngeen ngeen nous euh, changer ñu couche duñu solal de nous nous. ñu nous ñu école ñu Dara, nous ñu euh, euh, pour catholique nous l'Église. Nous nous nous nous ñu Nous ñooñu mën la leen yóbbu àjjana mais ki nga xamante ne juddu na ajak jak mu ne moom maamam moo tax moom mu nekk fi kon da war a topp maamam boo ko toppee nga koy jox sa alal te nga dem àjjana te yow boo nekkee ci problème kooku faalewu la boo dee sax duñ la suulandoor ak duñ la suul fuñ koy suulee moom Mm-hmm. Bass Abdou Khadre moom kooku moom dafa nekk doomaraam de première catégorie parce que gis nga nit bul topp nit ba mu lay lor ngay topp ci moom mu lay rey rey sa askan nga topp ci moom loolu yëfu mbaam la ngeen ma ci kàddu bi parce que gis nga dëgg yàllaa ko moom sëriñ moomu ko maamu kenn moomu ko yonent bi sax am na eh, kii eh, yonent nuuxu doomam yi yàlla xalaku leen jabaram yàlla xalaku leen te mhm. pourtant yonent la mhm. moom du sëriñ de moom yonent la maqaamam moo ëpp sëriñ mhm. kon gis nga nit ñi dañu war a yàlla dafa jàngale dafa jàngale muy ci alquran muy ci bible muy ñun suñu maam yi lu ñu doon jàngal valeur dafa baax ci nit Sénégal dafa perte valeur dañoo perte suñu dignité ñun suñu maam yi lu ñu doon xeex yépp ñun dañ koo ñëw nangu ñu téye ko njàtt ko nag ñu ne ñun ñàkk jom daal ñun foog ñu jël ñàkk jom ñu moom ko moomal ko suñu bopp poñe ko ba mu dëgër ñu koy sañsey sénégalais yeewu leen boo leen jógee ngeen naan sénégalais ñoo gën a muus yeneen xeet yi <laughs> mais vous êtes les plus attardés de tous les autres. Parce que ça papa na ne ma pas On bu won ci nga li nga xam dof-dof lool ñom dinañ la de ñom On xam dinañ la jangal mu yokku parce que dañuy bëgg puukare di wone wu wàcce sa bopp ba yàlla yëkkati la ay ma dem topp kër gi merci alors loolu yëpp ngeen gis ko moo taxit dëgg moo tumuraaki Sénégal dëgg dëgg dafa rafle Sénégal tey boo xoolee ñoom boo xoolee ñoom seen posture seen taxawaay ak li nekk di xew Sénégal boo defee analise global mooy ñoom ñuy woote seen bopp ay kilifa diine euh, seen lobbying la boo defee analyse nga gis da ngay gis ni Touba Rafia Mbacke Rafia euh, imam boobu xam nga imam la xafiya xaafia wër nga këpp moom rek moo taxaw ci dëgg Rafia Rafia Mbacke moom la kondom ci biir moom rek man su may déglu kooku laay déglu Rafia Mbacke waaw kooku rek sëñ xaw ma imaam la xaw ma nag imaam Rafia Mbacke xaw ma sëñ ba kooku rek nga bëgg boo bëggee dëgg dëgg te yàlla tax wallahi wal kitaab yi barke alquran alkim ak suma traay bàmmel ku bëgg a dëgg dëgg rek déglul Rafia Mbacke moom mais boo ñëwee Tiwaawoon mais dem bul solo sa bopp demal kër da baax Malick njool Fuuta Habib ak seen beneen rakk ak frère bi ñooñu ngay dëgg dëgg ji wër péñ fa seen maam seen bàyyi teg tànkam fa la ñuy teg seen tànk bu ñu la rëccee c'est fini waaw waay kenn mënul dindi li ma wax c'est fi faits mais ñette des yëpp ñu ngi dund ci deretu askan bi ànd ak Macky Sall complot moom ñi rey sénégalais yi kenn ŋaamul kenn sexul kenn yebul ñu ngi ne pat te Macky Sall ba ñu téegale ndéem ci mois de mars moom moo yónnee sëñ Mountakha daw si parce que ci lobbying bi la bokk groupe bi la bokk ñu ne ko doyoo groupe bi éclaté na fu ne ne boo gaaw la rek la mbay ñaaw mu daw si sauver son élément mais tey anam da ngeen ko dëgg mu ŋaang dëggu leen ko mu wax mu ngi ne pat curu kom doomam jënd ne bàyyam yëgul day fen day duul xanaa <laughs> kon baatin amul Batin. waaw baatin way pa euh, degul xamul ni Ousmane dañ ko mais c'est pas vrai day fait Batin. hana amul batin. Batin. waaw lolou moy amul batin quoi waaw lolou moy kon sëñ bi amul baatin waaw parce que bu amul batin. <laughs> dana xam lepp lu xew quoi xam ngeen nit ñi da ngeen di wax be faf yey seen bop yeen waaw wax be faf be faf yey seen waaw dal ngeen jàpp ni sénégalais yi ñun ñi ay dof lañu waaw ba pare toog fii bëgg ñu andil ay ay détails ci lan pour lan hein voyons même d'abord bëgg ñu andil ay détails fii tegal ñu ay détails ngeen déglu euh, waaw allo oui allo oui da baax naa def. maa ngi ziar noo def. maa ngi lay delloo a waaw wax nga wax wax ji yëpp. xam nga fa nga wax mm-hmm. mooy li nga xamante actuellement am Touba. kap boo ko takkee sax bàyyi faa ñëw dindi ko yéen a xotti ka. waaw lan mooy kap. kap wax nga kenn bu am solo. xoolal loolu mënut a xaar mi nga wëcceeku wax taal. nee na war na ni tere xeesal. te moom mu nga wëcceeku wax di xeesal dakk greffage. la moo tax moom duñ ko la moo daal gën a phase wala ñu wàq xeesalam bi. Mm-hmm. ah. waaw léegi nag avec ça nag ñoom mais yéen ma xam man laa mën a comprendre ñu màggal gi ñu jël bëgg bëgg di programme la ko Abdoulaye Wade mi ko def fedde moonu tooñ Abdoulaye Wade mi ñu def ko fedde moonu tooñ parce que lii ñu wax màggal dabax du farata lii nekku si alxuraan. waaw ci dañuy ñaara maam borom Touba. te ñoom ñoom ñu ngi koy du nii da baax du nii. dafa dafa lay laaj gis nga Touba la fay mbooloo bu màgg bi ñëw fan nga mos a gis ak Muntaxa jiite mbooloo moom te pourtant yomal xiyaama Muntaxa dina ko yor dina ko yor borom parce que moom moo woote moom moo ñëw wuy si leen ma. waa léegi ay doom léegi nag léegi bomb bi bu xalaatee foofu bomb bi ñoom ñoo ko taala ah. mhm. bomb bu ñuy ruubanaat nii pour jéem a terroriser ñoom la moom ñu ci biir. on s'en fout. waaw man mii xoolal ñu gis ne seen programme ñun on s'en fout avancé boobu gis nga na am bomba boobaa bomba bi amee na nan ka def nan ka def kër Mountakha googu ba xam ba xam ba xam dañ ak euh, élection am déet ñun man xam nga la mën a comprendre la moo duñ jël Touba ga jël Mountakha defal Mountakha moom Sénégal moo téye Sénégal loolu la ñuy ñun Touba Touba Touba ñun bu mu amee de quoi teewul fokk amee de ñun ñun soral quoi voilà loolu la quoi yooyu leeral gi rek jël jël ah, ak ak ñoom Antoine Diop parce que ñoom foofu seen yëfi doomaraam yi foofu lañ ko bëgg a def. ba pare nag ànd ak ñoom ñi jox ka nan ka fa def da seen pala bi ñu pala buñ ko rate de bu màggal gaa na ngeen ngeen def seen na ngeen def seen boobu bu baax a baax ba pare ngeen gis ko waate waa Pastef wala ngeen gis ko Pastef bi daf leen ko de bu leen bu leen reculer bu benn yoon ñi dañu fula quoi dañu amee de quoi Touba feeñ na danañ ko dóor Tiwaawoon wala euh, euh, Kaolack yooyu cité religieux yi ñu ne foofu lañ jëm quoi pour jéem a ji wut ñi ngi fen di bëgg a jax c'est-à-dire ay ay doobaraam lañu quoi fen rek sos lañu fi nekk ay benn débat gi ñu i nii lu lu defagul lu ne lu lu defagul lu ne lii mos gën a tuuti nguuru Macky Sall lu lu defagul lii mos tuuti ñii def def nañ ko defa defe ba fu mu toll nii seen plan yëpp fi nekk kii jeex na léegi nag ñoom bomb bi ñu xaar si si màggal gi nem ko fi def màggal goo xam màggalu sabar la màggal goo xamante ni kenn du fa tudde yàlla kenn du fa alxuraan ñee ñee ngay sab ñee ngay wër ay si dem si si doomu a addina ay jaamu yàlla ñu fay sukk di fa ñaar lool dama fa am loolu lañ tudde màggal yow xam nga ko la ni màgg waaye du sëñ Touba sëñ Touba wootewul lii ba sëñ Touba wootewul lii wootewul lii benn affaire puukar balaa maa dee ma ko doomu Muntaxa yéen naa sama sama papa yëgul ah sa papa yëgul te sa papa nee na du xool télé Sénégal moom télé arab yi lay xool ah d'accord donc télé arab yi lay xool donc dëkkam yëgu ko te pourtant da baax maa seetaan benn vidéo boo xamante ni wala ay xale yu ndaw yoo xam ne kenn amu si quinze ans ay di amuñu quinze amuñu quatorze ay xale yu ndaw nekk Touba gee di gees dem si benn bâtiment bu àggul mun taxaa jël deux mille deux cent millions ñee mun koy dimbali si ay ay naar dëkku jàmbur yow balaa ngaa bale buntu kër jàmbur doog bale sa buntu kër pare Touba nga xam lu bon nga xam la nekk sarat bi fa la wullee njaay dorog bi fa la wullee njaay lépp fa la wullee njaay mun taxaa ni yëgul yow mun taxaa nga nga nga yëgul te live vidéo foofu tey jii di wax maam borom Touba naka sa du noonu wallaahi asi bu nu yéexee ñu rey ka kenn si interview affaire bi la fi wax Abdou Khadir sa milliard nga yor soo ko leer ak as avant ñu koy jël si ay taalibu murid ñoo dem di ko attaqué ah? moom moom tam des si dëgg Abdou Khadir moom moo xamal loo métti si moom mooy mag affaire mag yi muy jaay dara bu ndaw la kooku moo gën a bon gis nga kooku mooy xam nu mu koy waxee bi ko waxee moom mooy ma matt melentaan su suuf kooku moo xale bu gën a bon yëpp moom Abdou Khadre ku bon la moom ku investir nga Abdou Khadre yow yow ku doomu raam affaire bi ni ngeen ko capturé Abdou Khadre yow ku doomu xaraa nga yow. parce que yow la lépp yow la lépp yow la pourtant mbàkk-mbàkk yaa si prison yi. gëm ne loolu anamu tey déggu leen kenn ku leen jàppale déggu leen kenn ku leen ñaara. moo tax Sénégal na ngeen di delloo si seen xel te xam ne fii yàlla moo fi nekk na nu jaamu yàlla yonente bi loolu la nu sant maam borom Tuubaa si loolu la doon dox màggal gi du màggalu farata màggalu xaram la loolu dafa ne fa daray diine dafa fa daray yàlla. dafa def daray yàlla loo xam yàlla. booy ba ngeen toog seen kër daray yàlla ma fa dabax. parce que bomb lañ leen fay dóor ngeen des seen bakkan ñoom dañ leen di tayle danañ leen rey tayle leen foofu pour seen intérêt ñoom pour maladie di dem rek. parce que xam nañu ni ñuy patriotique bu ñuy jëlee réew mi lépp tegu ci yoon. bien sûr parce que dafa xanaa xamoon lii moo ko tànnee Sénégal. barke wax la. affaire moo tànnee Sénégal. lii nga xamal xoolal dafa dë dë dëkk yi développé dafa am yii ñoom xamuñu yii. Ah. wala suñu yónnee dëkku Afrique yi suñu sama mbokku dëkkandu Afrique yi ñoom ni Sénégal hmm. lii la parce que sama maam yi dëkk Malika bas ko doxuñu woon lii ñoom dana ñeneen ñi de seen sët ñëw yàq Sénégal te ñuy yàq Sénégal sëriñ si toog tey Sénégal gi moo xam foo mën a bokk dañu yàq suñu Sénégal apporté ñu Sénégal dañ ngeen yàq Sénégal li Sénégal mel ni yéen sëriñ si yéen a koy yàq vraiment parce que mën nañu comprendre ngeen ñu dëkk ay jullit ngeen na pare Sénégal dañ leen di tàppa buxaari doomu karaamata jaay bi imbécile bi doomu ñàkk xolam bi nga naan yéen Sénégal jàmm moo fi nekk parce que moom milliards yi di sàcc jox ko moom la moom kay Sénégal jàmm moom fekk ci ngi toog assis di leen voilà. si prison xool xoolal Abdou Touré mi nga xamante yaayam dafa dem ba prison ak doom nu mu sax si xool da baax ñu ne ko carrément doo gis sa doom. mi ngi noonu ne eh, ko lekk lekk gi ko andi ma jox ko Abdou Touré xam nga ko mooy ki ñu ba ko ba dem nag. mais moom la Abdou Touré waaw. xoolal ma loolu. da ma xawma lu moo gën a metti ah avec ça Abdou Khadre di nu di di dama ndayam na Sénégal jàmm moo fi nekk imbécile bi xaramatu njaay bi ngeen doon yéen yàlla na ngeen dee yéen dee mo yi ngeen seen bi ngeen nekk ak seen oh <laughs> pardon dagg na <laughs> dagg na de oui dagg na boo ne dellu dagg na quoi koy dàgg da wéyalu. waaw waaw salaamaaleykum. maaleykum salaam mais gars ñi bu leen yàgg ci ligne bi. dafa dagg quoi soxna si waaw waaw tonton man naan xam naa du ma ndax euh, daf am rek benn affaire bu tuuti rek boo xam ne daf maa xawoon na xarit ci nit ñi woote. Mm-hmm. waaw parce man man dama lay déglu lu yàgg depuis ba nga ubbee sa YouTube ba tey dama lay déglu ma am yow euh, confiance di la déglu ngay wax lu am solo. Mm-hmm. waaw te ak lu mu lu ma tuuti tuuti tuuti war waruma jox kenn conseil ne xam naa ne mat naa la doom waaye ñii di woote di saaga sëriñ si nan ko bàyyi parce que mhm. kenn ku nekk da ngaa am gëm-gëm te mhm. Ousmane Sonko dafa bëgg yoonu murit te sëriñam bokk ci yoonu murit mhm. dégg nga dafa bokk ci yoonu murit di sëñ Abdou mun bàyyi Seex Xadi bokk ak waa kër waa kër ba sëñ Maam ko jur bokk ak sëriñ Tuubaa benn baay dégg nga ñun am nañ droit bëgg Ousmane Sonko am nañ droit xeexal Ousmane Sonko waaye li ñaan ngir yàlla ak jëmm yeneen ci ñi fiy woote nañ respecté kilifa yi te xam ni Ousmane Sonko buñ ko bëggee dimbali ñun ñuy woote te ni dañ koo bëgg duñu saaga kilifa yi. ok. Mhm. dégg nga. Mhm. parce que tamit Touba booy xool ba ca biir mën nga ni mbàkki mbàkki yi ñoo ëpp ci ñu bëgg sëriñ ñu bëgg Ousmane Sonko waaye nag ah, dafa toll koo xam ne ñoom duñu wax ci affaire politique. waaye bu dee yor kurus ak ñaan dañ koy ñaanal dañ koo bëgg te ñëpp a ko bëgg ñu bare ko bëgg man Touba laa dëkk donte maa ngi Italie waaye lii woote di saaga di mm. saaga gis nga maanaam euh, ay sëriñ jiw nii nii la jabaram di def yooyu yëpp yoonu kenn nekku parce que kenn ku ne yaa ngi sëyeeg sa borom kër ëllëg yamal xiyaam li lay dal yow dong yaa koy subir ci sa bàmmeel dégg sëñ diw day takk greffage sëñ diw day xeesal sëñ diw jabaram day nangam yooyu yëpp suñu yoon nekk ñun li ñu war a respecté mooy ñu xeexal Ousmane Sonko mi nga xamante ni Sénégal moo ko ñor. waaw léegi tegal sa loxo foofu soxna si dafa bëgg a dimbali xale yi. soxna si dégg nga mais en tant que nekk ci télé yi. Euh, soxna si di offense di wax yenn yi di tuute xolli nit ñi tamit baaxul. pare nga da ngay déglu. mais ñooñu lan moo nekk seen taxawaay tey ci waa Touba ñi nga xam ne ñu ngi leen tëj di leen tëj ci kaso bi. di len jay dole bay fali taxway gi ñu am di gor ay jigen non non non deglu rek da nga bëgg wax deug da nga bëgg deug deug dëgg non non da ngay deglu wala ma couper la quoi parce que dama la bàyyi xalaat ma deug da ma la bàyyi nga deglu ma quoi mo gën da ngay deglu deglu quoi parce que nak soy wax deug do wax deug partial da ngay wax deug te yalla tax la xew Touba ak lañu def naka def senegal ak ñom position bu ñu am tay mois de mars ba ñu dumee Macky Sall ñom dañuy daw ci yuxu wa lu tax li injustice bi am Sénégal ñoo waxuñ ci pour lan lañu ñu nekk di def Touba di door gor jigen té ay nit di leen door bref ñom duñu wax politique ah kay même yonent yalla mohammed sallallahu alayhi wasallam dafa politique yonent yalla mohammed sallallahu alayhi wasallam dafa politique nañ waxante deug nit boy wax deug bu wax deug partial Amoufi, fi non écoute-moi ce que je te dis voilà mais mais dëgg mais yow boy, pour globalisé parce que li tax ñoo ñu mer nous ñoo amul taxawaay ok ñoom ñoo amul taxawaay gu mat te ñoom dañu def nit ñi gis non nous mais dëgg c'est une nation, un pays. L'ité Sénégal, l'île, l'île. vous bu côté vous mat bu vous sénégalais ñu di mais qu'est-ce la mais est ce que mais est ce que li est laaj que li laaj li est ce que ki waxal est ce que déglu xam nga non non vous pas déglu pas dañuy déglu dama ne ni ko ñoom ñoo gën a dëgg li ñuy def maanaam dama ni dama ni oui dama ni Macky Sall amul nopp laa wax non waxuma waxu Macky Sall ñoo wax ak moom man waxuma waxi Macky Sall non dama ne dañoo waxut xam nga xam nga soxna si xam nga luy dëgg doo Macky Sall du ñëw nga tëjoog moom ci nekk munu munu bu ñu la ñëw nga ñëw taxaw ci penc bi commencé bi wax soxlawuñu loolu am na ñi leen jiitu am taxawaay bu sëñ Saliou taxawaay bu mu am ñoom amuñu ko Dabakh bu am ñom amuñu ko lan moy pourquoi ñi teju ngeen bëggu wala ñu xam li xew Sénégal ci yépp la ñom ñoo complot sénégalais da bëggu pour mu leer nañ négocier amu fi nañu masla bi te def ñu il faut que ça soit clair ñoom li ñu def mu gën a raw saaga sénégalais eh non non du ma la jël bàyyi bàyyi doo tontuwante ak moom fii on avance on avance comment fii am partial la fii dañu waxante dëgg amul ma demba amul ma pàtte waaw waaw yaa ngi may dégg naka mu maa ngi lay dégg maa ngi lay ziar waaye li nga wax lépp dëgg la saa waay dabaa oui suñu tool yi ji nga hay billahi loolay garaaw waaye parce que gouvernement bi dafa def benn processus mais mën naa ne da koo réussir parce que bi mu bëggoon a jàpp Sonko dafa def yoot xam nga di barricade di toj këtam xam nga di toj këram di ko di ko di ko di ko xam nga waay jaar ba am occasion parce que bi ñu barricade Ousmane Sonko cinquante cinq jours ba peuple bi mënuñu ko jénne si cinquante cinq jours yooyu quoi laa ne boobu la gouvernement bi am fit dem jàpp ko comprendre léegi nag problème mooy maa ngi gis gars yi ngi waajal ay magal ak gambo ji nga problème mooy plus de 1000 1000 et quelques personnes détenues 1062 soixante de l'opposition jouni hein? ak juróom benn fuk ak ñaar lañu tey ci kasso bi ci jaay doole billaa wallahi dallaay ah hein? waaw ba pare chef de l'opposition ñu japp ko mais fi ñu ci libération si libération wala wul Euh, euh, nekk nañu si libéré Sonko mais léegi ñu ngi si cadre Sonko est-ce que mi ngi si day wala day dee. si foofu lañ sa nag yow kii. ok non mu yéeme. waaw mu yéem bi daa wala tallaay. incha allah. dana dund bi daa wala tallaay. dana dund le mais daal man daal li may conseil. yaa man daal li conseil gars yi da ko conseil sénégalais yi. Mm-hmm. c'est l'histoire qui se reproduire diggante Mamadou Dia ak Senghor ak Serigne Sy. Bossi moom Bossi Mamadou Dia Bossi Mamadou xam nga dafa réussir ma Bossi Mamadou Dia xam nga lu tax parce que amuloon support de communication te mentalité yeewuñu noonu te bokkuñu contexte bokkuñu jamono bii moom du jàll parce que bi moom bi moom du jàll moom bii moom lu leer nañ dafa leer nañ tey nous sommes en position de force pour mu leer ok mhm. oui parce que eh, parce que Ousmane Sonko dafa waxul lu leer quoi dafa waxul lu leer Macky Sall te Ousmane Sonko lépp lu ma xam nañ ko bàyyi xel. waay nee na Macky Sall na ay Karim ak ay xam nga ay kii Khalifa Sall. waay parce que nee na moom jàppam doog ko yomb moom sax xamoon na ne gars yi dañu jàpp ne mais dafa ne jàppam doog ko yombalee quoi ndax moom mais mais ci résistance boobu la ah, ne. ñun ci la ñu ne wallaahi te ji nga leen nekkee nii du ko mës a bàyyi Ousmane Sonko ban teg lu mu wax dafay dëgg ci moom billaahi bi du ko mës parce que maa ngi dégg si benn poste ñu naan Ousmane Sonko nee ne dafay def résistance ba jusqu'à sa dernière chiffre léegi nag problème mooy peuple sénégal bi ñoo war a jël seen destin non kooku moom gala gaal gi gaal yi di daw di génn si géej bi ma ne ma loolu loolu daf ma rusoo fa waaw ma ne ñi xeex bi waaw ñi daw nañu daw rek ñoom nañu dem amul problème bi na wallahi ok ok ok alors ñooñu bu ñu amoon taxawaay bi nga xam ne moom la sëñ Saaliw amoon Dabax du egsi du egsi Nous ñoom ñëpp ñu ngi ci biir ñoo complot ñoo complot Ousmane ñoo complot sénégalais ñoo teg diir ñoom ñëpp ci lañ bokk tout le monde ci lañ pour muy leer fii ku ñëw fii doo wax dëgg partial tu dis la vérité wax dëgg te yàlla tax raj mënuloo ko ba coupé la quoi. ah Daba. waaw. waaw na mu gis ma. waaw ça va sant yàlla bu baax. waaw Omar Omar may ma may mu daaneel ma jël la wéy. Daba ndaw soosu li muy wax li muy wax lépp lépp lépp naa fekk la affaire naa fekk la. ana sunu ana sunu dix points yi ñu joxoon sëñ bi. <laughs> dellu de dellu si de. ana di points yi est wax na ci dix points yi. waxul ci dix les dix commandements. bi bi ñuy bi ñuy waaw bi mënee Macky Sall du moo sëñ bi moo génn ne jox leen ma seen doole ya. waaw man dinaa régler lépp dem leen toog déglu ma. waaw ana ana léegi lan la ci def. dara di mokk mokkaaral bu ñu génnee di pokk seen loxo yaakaar ni ñoom moom àdduna bi dañoo moom doomu aadama yi. bu ñu waxee mu ne maa leen amee bor bor boo xam ne doo ko fay mu. maa amee bor bor. waaw waaw ah man man gëmuñu leen ci bi bu ko fay man sama wàll ci bor bi bu ko fayul baalu ma ko ba keroog yombal xiyaam man sama wàll sénégalais la amel naa leen bor ah, sénégalais laa dafa mu ko euh, amel bor ñu dem ba mëne ko dem ba mëne Macky Sall mu ne jox leen ma seen doléance man dinaa bor la bu ma leen amel dinaa leen ko fay bu ñu ko fayul fii ba keroog yombal xiyaam man baalu ma sama wàll incha allah loolu de non li ñuy li ñuy li ñuy li ñuy ba yomb trop. toog muy dox ak fokk seen loxo. ma ne muy dox di fokk seen i loxo di bëgg a rey doomu aadama yi. li te ni ni ñu leen di topp rek ñoo ko def. li dal Sénégalais yëpp moom la. moom la ñu leen di quoi lépp moom la. lépp la bu ñu bu ñu bu ñu bàyyoon suñu révolution mois de mars pare nañ ak Macky Sall ñii dee ñëpp moom am na ci responsabilité moom. li dal Sénégalais yëpp ah, am na ci responsabilité. ëllëg ba tey complot Ousmane moom mi ngi ci biir mi ngi ci complot bi. lépp ci ndoddam lay nekk nag. ñëpp moom la. lépp dan ci lépp ci ndoddam lay nekk te dina ko layoog suma borom incha allah lu leer la la quoi. nit ñi nit ñi ñi leen di rey. ku yëngatu ñu dool ci biir kaso bi. mel ni nit ñi day mel ni duñu ay doomu aadama. mel ni duñu ay doomu aadama. mais yenn yabaate la. ñuy wax yëpp dañoo yabaate ay dañoo yabaate trop waay. mais nit ñi leen di jox seen xaalis yoo ko def rek. mi ngi noonu. bu ñëpp tegi bu ñëpp tegi woon seen i tuwe. ay màgg ñu xam ne la naka la ñuy wax ñu ngi tëj Sénégalais ñu ngi rey Sénégalais ñu ngi tëj doomu se setu se Bamba taalibe tëj ngeen di nekk fi màggal waaw. yow nañ sëñ ak sëñ Baara ni sëñ Baara. ni mooy je vais t'appeler asu seen taalibe bokk ci seen kër yi. ñu bàyyi ñu dugal ko ci biir euh, dugal ko ci biir kaso bi ba muy dem bay grève de faim ba dem bay waaje dee te ñoom ñëpp kenn newu ci ñoom ñoom ñoom ñu ne mukk mu xaaral seen làmmiñ dafa ruslu quoi. voilà dafa ruslu da ngay toog ba mu yàgg da nga naan est-ce eh, que nekk sénégalais te eh, jar na nekk sénégalais dafa ruslu trop. yeah billahi. yeah ok oh, damaa maa ngi laaj bi maa ngi déglu. d'accord jërëjëf waay. waaw alors astu astu may ma quoi may ma rek après ma jël dama la ko ñaan may ma rek Omar yàgg na ci ligne bi quoi may ma rek may ma rek astu ma jël Omar dafa yàgg ci ligne bi quoi. way Omar. waaw grand Omar waaw bisimilah way xolal waaw mais vite man maa ngi di door a wàcc nii sax maa ngi ci tali bi mais pour nga jégal ma ci biri bi rek bu amee rumeur rumeur quoi. waaw mais xolal grand tabax gel boobu génn léegi nii da nga leen di comprendre quoi xam nga dafa am ñoo xam ne du ñu judd ci ñu la leen ñii seen seen ñii yéen yéen ñi ngeen war a yaakaar maanaam ay yàlla la leen def quoi. yow foog nga comprendre ne ñii dañ leen def ay ay yàlla quoi ñoom foog ngeen comprendre moo tax ñoom doo werante ñoom quoi parce que comprendre ñu ay jaahir lañ. te bu com nit bu comprendrewul comprendrewul xamul yàlla xamul yonent bi xamul luy loolu xamuñu dañ instant bi grand système bi ñoom seen bopp dañu am problème dégg naa ku mujjee génn tamit nag Ousmane dañ ko def moom Diop Ousmane Ousmane Sonko la tudd Seydina Ousmane Sonko waaw surtout Bachir ak Alphonse Sonko tuddul Momadou Dia Ousmane tuddoon Momadou Dia ba addunay suuf ba adduna bi sàngoo suuf gars yi système bi système bi seen politique bi ñu def seen organisation bi lépp këpp seen kaw poli Macky Sall gouvernement mag sëriñ si ñoom ñëpp ñooy yem benn mbuus ñooy nasandoo ñooy noccandoo dañu def loo xamante ni dañu foogoon ne Ousmane du résister du dem grain de respect ñu dóor ko ci kosa bi dem continuer seen programme ñii di gàmm ñii di màggal ñii di yéey ñii di nappaaje ñii di ubbi ay poche du fi am. du fi am de yooyu yëpp dafi jeex Ousmane dafa posé seen i calcul. te Macky mu ngi am problème ak ak tubaab yi. fuuf tubaab yi ñu ngi koy ñu ngi koy martel guddeeg bëccëg ñu billaahi mu ngi ci ay guddi yoo xam ne. lu leer nañ nga wax. mënu reculer ci loolu sëriñ si ñoom seen wàllu bopp dañu am problème Touba ils ont divisé en deux dañ la dul wax li dëgg ba pare xam nañ ne système bi dafay jeex sëriñ gisoon doomu sëñ Abdoulaye bu génn di duulal papam dafay fan naan sëñ Abdoulaye daan dekkil ay nit waaw jooju wax yow <laughs> kooku ba ma aimé ba ma aimé ci vidéo boobu sax bat waay yow man gars yi ñoo commencé di comprendre boo léegi dañu commencé di di comprendre Moodu Europe Moodu Moodu mille cinq cent milliards et quelque lañu daan dugal dugalatuñu dernier sondage dañu gis na xaalis dugatul Sénégal gars yi duñu la wax ne xew na man damay suivre bourse damay dafa am ñoo xam ne ñu ngi xam xamante nañ quoi mm-hmm. ay affaire yu wóor RG yu wóor samay mbokk ci dañuy am na xam na ceeb seen mbir ñuy liggéey moo ne na amul jolof jolof amul weccit amul xaalis moo tax ñu nekk ci jafe-jafe seen màggal gi pourquoi ñu ciy insisté wala gàmm yi di ñëw wala dañuy kule ay bàyyi ñu fekk lii ak lii problème mu xaalis la ñu am Sénégal. danañ ko am parce que alxuraan karim dañu am problème mu xaalis instant bi grand système bi dañu nekk ci ay jafe-jafe. Mhm. Ousmane dinañ ko bàyyi ci nii wala ci naa yow toogal tuuti nga seetaan leen. bañ a <laughs> beneen bi mooy boobu déglu naa Akhenaton démb vite fait rek ma daaneel ma bàyyi leen muy wax ne mu ne moom li mu jot affaire bi am na lu ko ci avocat yi xaw a may quoi ci portable bi. Hmm. mais moom porte parole boobu noonu laaj leen ko kan mooy Mbaye Gueye Fepti. Mbaye Gueye allo allo danaan dem ci salon bi Bass Abdou Khadre fa la doon dajee gaay gaay xam na Adji Sarr de Bass Abdou Khadre xam naa dóor na ci moom comme addi ba Adji Sarr na ñëw ak keneen waaw ak keneen comme Adji Sarr moom gaawal balaa sama yaay ñëw la moom xam nañ ko bu ñoom xalal am na loo xam ne grand bu leeree <laughs> bu leeree barki alxuraanu karim ñoom dañu nekk ci ay jafe-jafe dañu nekk ci ay problème de am na loo xam ne mënaguñ ko wax parce que avocat yi dafa am dañ ne li ci nekk mënaguñ ko révélé mais am na gaaw ñu pare ñu jox ñu dossier yi laajal maaxi ñas laaj ko moom ak Mimi Touré ak yeneen ak grand waaw yow mooy loolu nañ déggoo yow. d' après boo coupé ñu déggoo ju suuf caaw. jaajëf jaajëf waaw waaw alors fi ñun fii xay ñu ngi leen di xaar barke salaatul fàtte ñu ngi leen di xaar na avocat yi gaaw pare jox ñu portable bi danañ leen weer ni jajj bëccëg bëccëg ndar kaam waaw. allo révérend waaw. bon euh, jigéen jooju bu ma ko tontuwul rek du ma mën a nelaw tey. waaw tontu ko gaaw gën a parce que xam naa ni. <laughs> ne ko ne ko yàlla yàlla bu muy wax. Hmm. bañ na ba mu ne dafay wax ak borom xel yi. jeex na. waxul ak mbaam waxul ak xaj yi. Hmm. waxul ak lappata yi. Hmm. kankërlaay. gis nga moom en direct dafa oote. mu saaga waajuram yi te xamu ko ah. xam nga nit day muus mm-hmm. waaye ñàkk xel moo bon ci nit mm-hmm. sëriñ yi ñuy wax mm-hmm. sëriñ buy wax dëgg dina ñu ànd ak yow ah ñun gis nga ñun tey Ousmane bu Ousmane Sonko bu tegul tànkam ci dëggam ñu wax ko dëgg ah, xam nga nee na buñ na leen saaga léegi nag may tuuti ma wax ak ne ko sëriñam yooyu yu mu ne noonu fankat yi ma commencé déjà par euh, sëriñam bu mag bu xalifam bi maa maa toog fekk lambada ci dëgg la fal ndayam pour mu comprendre parce que bu amoon xam-xam bu amoon xam-xam du ñu toog di naan waaw yëgu ko woon dooma raam yëpp naa teg fini ay complot kat lañu sénégalais yi ba pare fii la ñu jekku Macky mu ne nañ ko may ñu may ko muy katta ndayam nekk fii ak bëñam yi niroo ni eh, eh, mu mu muy naan ah, waaw maa bor ah bor bu mu ñu yoral mooy bu rey ñu balaa mu ñuy rey ñu dëgg ndayam ba bu adduka waaw ok xamuñu sax parce ah, de ngeen baal ñu nag moom moo ko def quoi <laughs> si xaaral quoi <laughs> complot kat lañ ñoom ñoo ko complot <laughs> moo tax sa waay sa <laughs> yaram bi tàgg na de ara rek ko <laughs> sister ñoom la de ñoom ñoo ko complot ñoom ñoo complot sénégalais yi ah waaw ñoom ñoo complot sénégalais ñoom mafia bi oui voilà gis nga xale bu jigéen boobu xaw ma maire la xaw ma lu mu doon. kii ah. génn sànq kii wax buñ saaga sëriñ. Ah. ne ko ñun ñu ne ku bëggul ñu saaga ñu tas sëriñ ndeyu sëriñ. Uh-huh. ñun bu ñu amee problème bu ñu jekkoo na sëriñ yi yëpp képp seen gémmiñ yi. waaw ah, jeex na. ku bëggul ku bëggul ñu saaga sa sëriñ. waaw bu ñu jekkoo na ñu képp seen i gémmiñ waaye fasene nañ ko fi dégguñu leen. buuju toj nañ otoom dégguñu leen yow ak say sëriñ nañ ko dégguñu leen ma wax la bokk sa dënnu ndey ak say sëriñ ko yow voilà. waaw ba pare ba pare waxatuma loolu ñu naan yëgu ko woon se grave ça veut dire ki leen ki leen jiite. waaye ma ne il est complice. <laughs> complice la baatin bi nawu fi. c'est grave li ñu wax c'est complice c'est un complice. complice nga naan ñoom ñoo muy ah, mafia. ñun bu ñu jekkoo ñu génn ñoom ñëpp def seen nu leen neex comme ni ko maam seen di ko waxee Père Noël. waaw waaw mafia ñun ñun ñun ñoom buñ ñu jekkoo ñu ne tekk tekkaaral mais incha allahu rabi gis nga euh, deux mille vingt quatre hmm. wallaahi kii dina génn dëkk bi fii dina génn dëkk bi ci nii non sëriñ si cot ci ngeen di def di ngeen teg seen tànk ci siraatikal musam par force parce que yéen moom la ñit ñi moom leen réew bi di ngeen ko teg fii wala ñun ak yéen ba da ngeen di teg cot ci ngeen di def wala ngeen abal

ñan dem waaye yàlla baax nag nañ dem ok ma bàyyi la keneen ok mafia bi déglu leen de waaw mu tegal leen benn ngeen xam ne dóorkatu bon la day dóor boonam be wax benn takk ñëw taxaw dóor ay asisem lay tux lak ba ba ba ba réer ñëw taxaw déglu leen ko fii yàlla kenn du ko utal moroom benn yàlla moo fi nekk réew moom kenn du fi xala ko nekk sëriñ bi wax dëgg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 kenn du fi falu ba àddina tukki te yow sëñ Tuubaa yàlla kenn du ko utal moroom benn yàlla moo fi nekk mooy def mooy dindi mooy fale mooy folle qul illahuma malikal mulki tuutil mulka man tashaa'u wa tanzi'ul mulka mimman tashaa'u wa tu'izzu man tashaa'u wa tuzillu man tashaa bi yadikal xayru innaka ala kulli shay'in qadir réew moom bon réew moom day tux ay ay ay achichom benn tat day tux tat dagg place nag ci penc mi quoi ñu jox ko muy xoteeku quoi gaayen bii quoi dégg léegi bu ñu ko tontuwee ñu ne non dañuy attaqué si Amadou Bamba Cheikh Amadou Bamba amuloon poos poos xaalis di ko tey dafa dumóoyu àdduna si Amadou Bamba yàlla yonent bi alquran jàngale teg jaam yi ci yoon pour ñu dem ci ñëpp aji ñoom ñëpp Bamba loolu la xam Bamba xamul politique kan kan kan non Bamba liggantewul lool léegi ñii ñu ko waxee xam ngeen doobaram ji dafay tux achicham ba taatam tàng jër mu sol koppatiyam ñu teg nag mu ñoo toog nag commencé nag di wax ay waxu dof soxna si yow mi doon wax dégg li dof dof waxi dof mu ngi nii waxi dof waaw wax bu dofee nopp yu dëgg wér waxu dof mi ngi nii li wax takk lay def ni xaj dër toog nag teg koppati bi quoi bopp teg jër mu taxaw nag di wax wax kañam c'est ça li xew Sénégal yëpp mi ngi noonu. waaw grand tey mu neex de tey pare guñu de waaw. <laughs> waaw pare wuñu duñu pare. yii tey man ñii di wax ak yow taalibe murit la nañ dem rek mais man Pa Pa Mountakha je ne le considère pas comme kilifa diine. Mhm. grand bu ñu amoon baatin ñoom war nañoo jomb di toog ak Macky Sall. parce que franc-maçon franc-maçon. fenkat rek la xam waaw bu ñu amoon diine bu ñu amoon baatin dinañ seexlu toog ak Macky Sall. tekki wuñu dara gis nga sëriñ bu fi futtiwul sagat dem liggéey dootoo tekk. maa la wax loolu dañ de <laughs> futti seen gat dem liggéey. moo gën de. sinon duñu tekk. ñu ngi doon looloo fi xew. looloo fi xew. Mhm. naxaate bi moo fi jeex. jeex na tàkk. te li nga wax noonu la demee ñi si dee yëpp après deux mille vingt et un Mountakha Mbacké mooy le principal responsable. moom la de. te dina ko layoo ak sunu borom. barke salaatul fàtte du dina ko layoo ak sunu borom. waaw parce que grand bu fekkee dama yor da damay xeex ak nit mu yor paaka ma fexe ba daaneel ko bu ma ko daaneelee nga ñëw intervenir ne bàyyi ko dootu la laal mu wëlbatiku jëlaat paaka boobu jam ma waaw ah, Moustapha Mbacke loolu la def il est responsable qu'il la sache. Ah, waaw ñoom ñoom xeexu góor jigéen bi li ci Abdou Karim Gueye xeex dañ ko ci xeex. xeexuñu ko de. yow ñoom ñëpp pàcc la ñu def dugal nga dugal nga dossier góor jigéen. député yi jël ko sànni ndayam ci mbalit ñoom bu fekkoon dañuy représenté diine dañuy taal seen oto ne na ma taalibe yëpp fekk fële eh, buntu assemblée. waaw waaw bu ko Moustapha waxoon mbay Sy Mansour wax ko. ñale bi ñu reculé ci loi góor jigéen. bu doon da baax Malick nga xam. otoom ban acte la ñu posé. ci biir assemblée ne la ñuy dugg pour religion bi. parce que salaatul fatiha posé wuñu benn acte ci religion bi. grand li ma lay wax ni man la dal daaw jéeg dama dem masaalikul jinaan di julli foofu àjjuma. Mhm. sol pantalon ak chemise ñu ne ma doo dugg ci jumaa ji. déggal ma loolu pantalon ak chemise. loolu ban diine la. te ñoom ñu ngi doxaan jabar jàmbur ak xaalisu franc-maçon ak góor jigéen lañu la ñu tabaxee jumaa ji. jumaa ji waaw il ah. faut dire la vérité. il faut dire la vérité. léegi nag bu loolu weesoo grand. bon damay dégg ay interprétation ci actu Ngagne Demba Touré quoi. Mm-hmm. bon ngañ dem Demba Touré man li ma gis li mu def c'est un retrait stratégique. ah mais non comprendre c'est super. non mais grand du question dafa daw Ngagne Demba Touré ku ko gis xam ni am na xel am na fit. Mm-hmm. mais boo nekkee ñoo xam ne ñii ay dëmm lañu. Mm-hmm. da ngay utiliser sa xel aussi. oui. parce que parce que booy bële ni ñu koy woowee Ousmane Diagne ça fait plus de deux mois dig daf ko woo nanguwul dem. waaw mu ngi làqatu quelque part. mais ça, bu war a dina génn wax ak sensibiliser oui. bi aussi c'est pareil bu fi mu toll ko dañ koy ko ci pour mais mais bu fekkee am possibilité dem génn dem dëkk bu Mali c'est un pays stratégique. mais et ça veut tout dire c'est un coup dur pour Macky Sall mais mais attention. mais le combat là. mais bu ñu. poste bu national GPS. mais il communique très bien mais ngagne pour buñ ko téyee mais combat bi communication combat bi kan moko ko gàddu ba mu tangé dafa dem laxu ji Allemagne fële wala dafa refusé ngañ puuree dafa doon retrait stratégique pour mun porter combat bi de loin là-bas mun def ay vidéo ay conférence am di ko di wax di dénoncer combat bi di téye mu dem mais c'est normal jege Antony Koïta jël ay technique stabiliser Macky c'est tout mais c'est un retrait stratégique parce que dama gis sànq maam sen génn waaye way ngañ dem Touré dafa waru woon daw mais moom dafa daw xoolal euh, am na ñeneen ñoo xam ne jaruñu déglu sax waaw avancé quoi waaw d' accord dama ne activiste mm. boo xam ne yow yaa ngi fii toog yow tey jii buñ la joxoon billet suba doo dem parce que loolu du xel du question da ragal mais stratégie la mm-hmm. da ngay waa wàcc Macky Sall arrêté la sànni la kaso dëkk bu amul yoon communication bi ñàkk benn communicateur mais sa xel ngay demee waaw mais dafa yomb nga toog sa kër comprendre nga naaj di génn nga nekk sa biir kër sol sa xaw ma sa lan naan way daw na kii daw mais demal Sénégal yow bu fekkee dawoo. ma ne demal Sénégal déglu ma boo ko jëndaloon billet suba tegal ko ci mille cinq cent euros du dem. ma ne ñii naan parce ko ci kaso bi. waaye ma ne ñii naan dafa daw yëpp ñoom ñoom ay mm. doomaram lañ ci système bi la ñu. waaw c'est pas vrai c'est pas vrai c'est une ah. bonne stratégie. nañ ko jàppale ñaanal ko France ci général de Gaulle pour mën a ñëwaat di récupérer dëkk bi. jeex ñeneen ak ñeneen stratégie de communication la. son son son son courage est à saluer. sa stratégie. waaw stratégie la teg génn na fa dem na Mali. dañ ko jàppale ñaanal ko te xeex bi dañ koy gagné grand incha waaye moom kay baal baal yàlla mu soxla ah, ñoom bas ku futtiwul sa gat dem liggéeyi dootoo tekki taalibe yi ñu lañu yónnee saram ndayam. loolu c'est fini. ay dem mag exploité jeex na. jeex na de waaw futti sa gat dem liggéey xam nga sëriñ yi lan lañ doon wax am na sam benn goro da doon wax naan sëriñ yi noos ak ñuus. waaw noos la ñuy def bu ñu demee suñu borom ñuus leen. c'est terminé ah. waaw waaw. donc live hein? euh, François. Nous sommes donc face à trois scénarios. Le premier, Sonko est déclaré éligible, il gagne la présidentielle. Le deuxième, c'est qu'à quelques semaines des élections, on invoque un cas de force majeure pour ne pas les organiser, comme par exemple une recrudescence des tensions en Casamance, qu'on s'attelle d'ailleurs à allumer en ostracisant les habitants de la zone depuis quelques semaines et en rappelant dans les rangs les soldats envoyés à la retraite ou alors on se débarrasse du successeur désigné au sein de l'Alliance au pouvoir pour justifier le reniement du renoncement, ce qui est la marque déposée de Alassane Draman Ouattara et a très bien fonctionné en Côte d'Ivoire. Le troisième scénario, le président sortant ne se représente pas, son alliance au pouvoir désigne un candidat qui n'a pas de grande chance de gagner, l'adversaire principal, le plus dangereux pour la survie du système, est éliminé d'office, et c'est l'un des opposants à Macky Sall mais pas à la France-Afrique, qui remporte aux surprises les élections. Comme ça, on aurait satisfait tout le monde. Il y aura eu alternance à la tête de l'État, mais le système france-africain est sauvé. Je vais m'attarder sur la troisième option car elle est la plus sournoise, la plus raffinée et la plus probable. Et pour cela, il faut que vous en cerniez bien les contours. Ne perdez jamais de vue la place qu'occupe le Sénégal dans l'édifice france-africain. Il y a quatre pays qui sont aussi précieux et indispensables que la prunelle de leurs yeux pour les occupants successifs de l'Élysée. C'est le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Gabon et le Tchad, pour des raisons diverses. Le Sénégal, c'est le cerveau, c'est le poumon administratif de la France-Afrique. C'est là que ce système mafieux a été pensé, intellectualisé, Ancré dans les mœurs. La Côte d'Ivoire, c'est la poche de la France-Afrique, le socle économique du système. Son pendant en Afrique centrale est le Gabon. Quant au Tchad, c'est le centre de gravité militaire. Et comme je le dis toujours, l'armée française est la matrice de la France-Afrique. Vous l'enlevez, le système s'effondre. Alors quand le Mali s'échappe, le Burkina s'échappe, le Centrafrique tente de s'échapper, ça leur fait mal, très mal même, car c'était leur réserve pour l'avenir qui s'évanouit dans la nature. Mais envisager le Sénégal s'échapper, c'est carrément une douleur indicible, intolérable. C'est le passé, le présent, le futur qui s'en vont d'un seul coup. C'est inimaginable pour eux. Alors voilà ce qui va se passer. L'Élysée va tenter de blaguer Ousmane Sonko, lui passer des coups de fil, l'assurer qu'on n'a rien contre sa candidature, qu'on est à ses côtés, et essayer en parallèle de le détourner des promesses qu'il a faites aux Sénégalais, d'influencer son agenda. Lui souffler que ce serait bien, par exemple, s'il prenait ses distances avec Guy Marius Sagna, cet extrémiste qui ose avoir une Ou avec l'avocat Juan Branco, intenable selon Paris, parce que toujours aux côtés de ceux qui veulent renverser le système en France. Et pendant qu'on l'endort, on déroule le vrai plan. Jusqu'ici, Jim ont surtout été du fait des membres et sympathisants du PASTEF et de ses alliés. Mais l'annonce d'une candidature de Macky Sall aurait jeté encore plus de personnes dans la rue, car il y a des gens qui n'ont <laughs> aucune sympathie pour Sonko, mais qui sont aussi viscéralement contre un troisième mandat de Macky Sall ou contre la rupture d'une tradition démocratique dont ils sont fiers. En déclarant qu'il ne se présentera pas, Macky désamorce cette crise qui aurait vraisemblablement balayer son régime avant l'heure. Il peut dorénavant procéder à l'arrestation d'Ousmane Sonko sans que l'ensemble du peuple se, soulève. Car le vrai plan, ce n'est pas seulement d'empêcher Sonko d'être candidat, mais également de l'empêcher de faire campagne pour quelqu'un d'autre au cas où sa candidature serait invalidée. Donc, il faudra soit l'envoyer à Rebus, soit le maintenir en résidence surveillée, comme c'est le cas depuis plusieurs semaines, mais en lui coupant tout moyen de communiquer avec l'extérieur. Fini les lives et les coups de fil, sauf ceux de l'Élysée et du Quai d'Orsay. En parallèle, la suite du plan sera implémentée avec la réinscription de Khalifa Sall et Karim Ouad sur la liste électorale et l'acceptation de leur rééligibilité après avoir purger leurs peines de prison respectives. Karim, qui réside au Qatar, a d'ailleurs fait un petit gasoil en Turquie pour s'inscrire discrètement sur la liste électorale le 17 avril dernier en violation des dispositions du Code électoral sénégalais. Ce qui avait été impossible en 2019 s'est fait au calme en 2023. Et Macky Sall a annoncé dans son allocution de lundi qu'il avait convoqué le Parlement pour procéder à des modifications législatives. Pour Emmanuel Macron, le successeur de Macky Sall pour sauver le système doit venir de l'opposition afin de désamorcer toutes les mines qui pourraient faire échouer le plan. Inspiré par la réussite du scénario congolais qui a vu Félix Tshisekedi, avec la complicité du président sortant Kabila, rafler la mise au nez et à la barbe du candidat du parti au pouvoir et du leader de l'opposition Fayoulou, il veut répéter la même chose au Sénégal. Et comme il sait que Sonko ne peut pas se permettre de renier ses engagements auprès des Sénégalais qui sont morts pour lui, et qui n'attendront pas dix ans, le cas échéant, avant de se lever pour le chasser avec la même véhémence qu'ils ont employée pour contrer toutes les attaques contre lui, il a préparé en douce son alternative et repéré sa solution au sein de l'opposition. Trois figures ont le profil qu'il faut, Karim Ouad, Khalifa Sall et Mimi Touré qui sera in fine parmi eux le candidat de la France-Afrique, venu pour berner les Sénégalais et perpétuer le système spoliateur qui ne veut pas mourir, qui ne veut pas voir le pays qui héberge le siège de la BCAO sortir du franc CFA qui ne veut pas voir les 350 militaires français du Sénégal être priés de repartir alors qu'ils sont si utiles pour effectuer des saisies de drogue en haute mer dont on ne voit jamais la destruction et qui laissent toujours tranquillement repartir les navires de trafiquants après avoir pris leur cargaison. Une France-Afrique qui ne veut surtout pas assister à la mise en œuvre d'une gestion souveraine et dans l'intérêt du peuple sénégalais des ressources gazières et pétrolières, comme Ousmane l'a décrite dans son livre qui va s'afficher sur l'écran et que vous pouvez télécharger gratuitement dans mon canal Telegram. J'ai ma petite idée là-dessus et j'en ai fait part depuis longtemps à qui de droit. Mais ce n'est pas seulement moi qui dois parler. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez. À bientôt. Voilà. Jérémy. Euh, donc, euh, euh, c'est très important c'est pour euh, euh, parce que français c'est un problème yëpp mu femme bi quoi comme ça cette femme là dina mën a dinañ ce qui se allo. allo Daba. waaw. non def Non, yaa dawa ñun suñu xol dafa jeex kii ndaw soosu dafa yabaate kii dugal ñii di di wax seen seen seen seen yàlla yi nii. ñi dañ yabaate seen yàlla doomi xaraam yi nii kii xanaa xamut ne ku bëggut ñu wax sëriñ bi dara bi ñu naree rey Macky Sall sëriñ bi moo fi génn a teddu ne ñu ñu ne ñu ne téye paaka bi ne taxaw leen. waaw. ñu jox ko suñu ay point. ndax hmm. réglé na suñ point. réglé na tous. ñi complot fii complot Ousmane Sonko ñi tey war di ko teel di ko rendi mhm. sëñ Abdou Ba Abdou Ba xaw ma saaral xaw ma doomi xaraam googu noonu daan maase aji saa di ko daan maase ñii ñëpp ñoo teg a complot bi so ñii ñii ñii ñii dañu dañu dañu bëgg a yab ndax lan ah taxaw ah? xeex rek fii moom ñii dañoo saaga ndey sëriñ si de fu mu ah. nekk amatul masla amul ñii de yow moom bul saaga de waaye ñun bàyyi ñu ñun ñu saaga seen ndey diko ñi day yabaté buñ tole ni suñ xol dafa jéxé ci gatta gatta lañ nekk fu mu nekk nii mm-hmm. xam nga ñi ñi ñi day jabaate way ñi ñi motax ñom dinañ xalako seen sëriñ yépp do mm-hmm. amulo dara loy wax nga naan buñ lifin sëriñ sëriñ bu si bëggut ñu wax sa lifin ci si génnal ci mbir mi mm-hmm. ah yéen ngeen complot ni tay ci ñu wara rey Macky Sall mu ñoo téye paaka bi Macky Sall di rey nit ñi sëriñ bi tim lolu waxu si ŋaaŋu si yaabewu si tooki am fi problème mu dem jël deux cent milliards xaw ma dem di ko jox waa tooki sas yow sa mbokki sénégalais yi toog foofu noonu ah kon yow faalewuloo sa doomi réew yow beneen doomi réew kon moom moom moom doomi xaraam la leen sëriñ bi téye moom si doomi xaraam yi la bokka moom mii toog di wax sëriñ bi ok sëriñ bu du seetaan sa dikka ah sëriñ bu du seetaan li xew sa dikka ok ñuy dabax ñun suñ xol dafa neexut kii ñii bu ñuy yàpp d'accord yow xaaral ma may ñeneen ñu duga hmm. alors jabar DJ DJ Badji dafa dem ci ambassade France ambassade Sénégal en France dafa grève de faim grève de faim parce que jëkkëram dañ ko rey DJ Badji dañ ko rey dóor ko acide ba mu seey ndaw si dugal na loxo dugal tànk dugal bopp dara tous tay nous avons ci grève de faim gis police France ñoo ambassade Sénégal De police France amul droit ñoo ambassade Sénégal territoire étranger là. la femme de Didier Badji était en grève de faim et nous avons vu la France envoyer ses policiers pour venir dégager cette dame là qui est victime son mari a été assassiné par le régime de Macky vu la France Hmm? Hein? pour au nom de quoi Pourquoi Pour là hein? Pourquoi Aujourd'hui, elle est en grève de faim. Tous, euh, pour réclamer, même les enfants réclament leur papa. Devant la réclamation des enfants, là, cette dame-là ne peut rien dire. Diabara ñu dumóoyu ko gendre saisir na gendarmerie kenn faalewu ko kenn defu ko dara tey mu ngi ci grève de faim ndaw si dañu dëgg parce que nit dëgg dëgg moom yàlla yàlla dëgg la bëgg nañ ko wax mu deex hmm? ah loolu mooy dëgg donc euh, dañ ko jàppale ñu ñëpp ci combat ak ndool te bu leen ci génnee kenn dootu leen topp amul leneen lii kese la sénégalais nag ñoom <laughs> le premier euh, soin bi Macky Sall demul ba tiit jaaxle. Hmm? départ fii ak guddi dem Touba ñi di ko yooxaloo mu gis sëñ bi te jóg moom lu yàgg. Sénégal yëpp commencé di nooy waat naan jàmm dina am sëñ bi yëg na ko mu Macky Sall dem na fa. bañ xëyee suba teguñ ci ay fan sëñ Mountakha woo Baye Fall ni leen fii ku fi manifester xar leen gatam waaye buñ fi nekk di nax suñu bopp nag wax dëgg yàlla buñ fi nekk di nax suñu bopp. tax gis nga diggante sëñ Mountakha Ousmane Sonko bañ ko yàqee du tey ba mu fi Ousmane Sonko di wax ne sëñ Mountakha bëgg naa koo gis ay weer a ngi ni ma bëgg koo gis mënu ma gis ku ñuy wax maam Thierno di doomi sëñ Mountakha ba mu génnee ko ay ba boo defoon lii la sëñ bi dugaloon kon kon doo egg si fii doo nangam bu ñu naxante dëgg gi suñ borom moo ko moom ñëpp ko yëg dañoo bokk ci complot bi ñëpp ko yëg kon leer la ñëpp ko yëg léegi xew Touba ne mooy xew Dakar Touba nga ne ñu dégg leen Baye Fall ne ni ko fi manifesté duma leen ku fi leneen duma leen kab ya ñuy nangoo boppin jàmbur yi ñuy xus yëpp ci manifestation yi donc lañ lañ ko commencé jee fi nekk bu ñu sonal suñu bopp nañ avancé ci leneen fii ku fii dugg naan ay nañ ko wax sañ mun taxaak da ngay kamafule rek ñun ñëpp ay murit lañ ñun ñëpp ay murit lañ Ousmane Sonko da leen arrangé wul parce que ñu ci bëree bëri dañoo ne ak recherche bu nekkee ci du toppe or ko demewul noonu boo dee xool ba ci day mel ak soxor dañoo soxore sénégalais ñoom jàpp nañu ñaari famille a teet muy famille maraboutique ak ak ak famille politicien gémmiñ bu waxul dëgg waxu fen lii moo xew a génn ci ndool ba faw wala ñu ñàkk fu la des ci ak ndool sëriñ si continuer di leen not mm-hmm. lii ñuy dund Sénégal nii du lislaam du dara ak noteel dong la aku njaam du lenn nañ waxante dëgg nañ waxante dëgg waxoon naa ko naa ko fi waxaat dëkk yi amul tarixa yëpp dem nañ seen yoon bu yàgg si ah Ahmadul Xadim ba muy sos tarixa murit jàpp ay nit di not ak di leen maateeg di di di wut lu am ci ñoom taxul woon ak buum rek la ko jàppe woon nasu ci buum gii jëm ci suñu léegi nag ñeneen ñi ko ñi fi ñëw dond ko ñoo ko jël def ko moyen de de disukaay di not jaam yi fu ñu fekk gor yi di leen toroxal doomu adama yi kenn gënu ci sa borom ñëpp ñi nga gënantee ci suñu borom te xol bu laab la la nit ñi gën a gënantee yonent bi Seydina Mohamed bu ko suñu ne ko bismillah rahmaani rahim allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-faatihi lima ughliqa wa al-khaatimi lima sabaq على آية كل مخرجات وفرق حكمته صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما وقت سلسال وقني وقت سلسال وقني كي أها على آية كل مخرجات وفرق حكمته صلى الله تعالى عليه وعلى كوكو موي سلسالو واو yàlla nañu yàlla defal sutura. kenn kaa ngi nii de. coow yeeg ak yëngu-yëngu yeeg yàlla na ko yàlla dal. huwa almuharrik wal musakkin. yal yal na yàlla dalal. yal yal na yàlla dalal. yal na yàlla dalal. kenn kaa ngi nii de dabax maali. ba mu tey ñoom ñëpp ñu bokk d'accord ñu bokk waxtaan. ci li ngeen di wax xam na ko tubaab bi tuddee. dialogue dialogue baax na de. ah ko. waaw Thierno. waaw dama. waaw. maa ngi lay jaar maa lay jaar. ñu ngi dama dama dama dama kontaan dama kontaan ci sa live tey bi quoi macha allah. Mhm. li nga li nga wax boo bëggee dégg dégg mm-hmm. parce que noo wax ni yow xalifatullahi fil ardi nga ba pare nga gis mm-hmm. jaamu yàlla yi ñu leen di mbugalee gis jaamu yàlla yi ñu leen di toroxalee ak coono bi ñu leen di teg nga mm-hmm. taxaw ne pat kii nga xam ne moo nekkoon xalifatullahi fil ardi muy muy sallallahu alayhi wa sallam bi nekkee da daan jël li nga xam ne ku ñu tooñ ku néew doole ñu tooñ la mu fexe ba jël sa dëgg delloo jox la mm-hmm. tey Ousmane Sonko ñu ngi ko tooñ ñëpp a ngi ci teg seen xam nañ ko tooñ. Mm-hmm. ñi tuddee kilifa amul kenn ku ci réagir taxaw wax ci. seetaan mm-hmm. ci sot la bokk. soo bëggee dëgg-dëgg seetaan ci sot la bokk kon ñoom ci ñoom ci ñuy sot Ousmane Sonko la. dañ ko complot sax ci bokk nañ ci complot de. dañ koo complot. seen kaddu yi ñu ci téléphone bi de mooy sot bi. te gis nga yàlla du nit. Mm-hmm. te li ñuy def lépp seen kaw lay seen kaw lay këppaat. waaw wala te nañ seetaan nañ dem jamono jamono mi dox am na yu bëri ngi commencé leer ñu ñaañ ko commencé. Mm-hmm. di xam mm-hmm. dinañ gën a xam. te yàlla xam na ko bis bu Ousmane bis bu Ousmane demee ba toog nekk président yenn dossiers yi sax laa lay wax yenn dossiers yi nga xam du ko umpoon dinañ ci xam lu bëree bëri. bu boobaa sénégalais dañ gën a yeewu. portable beeg yoy waxuma ko de bis bu demee ba nek président ba nga xamni yene secret d'état yi nga xamni dañ nangam yëpp teggu ci loxo bu boba yeneen yi sax na gëna a ñi gëna xamni a xam Sénégal ben ben mafia moko ko xol di cëroo xaalis Sénégal yi di nan drep Sénégalais grand Dabakh li nga wax rek a li nga wax rek mo am xolal ci ay jëmmi Serigne Saliou nga xol jëmmi El abdallah Abdou nga xol jëmmi ñi fi nek tay du ben sax du ben da xam ne ñi ay mafia lañ toog ci ay seize or toog ci nangam ak nangam di séddu ay milliards. Mhm. sa soxna xeesal ba ba mel ni ba mel ni daange bu nga man xaw ma ndax man xaw ma ñun si ban Sénégal lañ ne quoi. ah mu ngi noonu de. dafa ñaaw moo tax ñooñu bu ñuy jëlee Ousmane di ko def li koy def non warul bett Sénégalais quoi. Mhm. warul benn Sénégalais yi nga xam ne benn groupe mafia la ñoo taxaw benn instant di sot ki nga xamante ni dëgg la quoi bu Ousmane parce que Ousmane da a send mm-hmm. a ñeme dëgg da gën a jub mm-hmm. Mm-hmm. looy wër ci njub Ousmane la leen kopp yow ki nga xam ne dafa nekk impôt domaine mosu fa lekk juróomi dërëm tey nga bëgga jël ay cas yu ñàkk fay ay cas aji saa rek jël ay yeneen ak yeneen xam naa ne live bi commencé na dinaa ko teg en direct léegi ñu ñu xam nga njaalo njaalo sàcc la. waaw. njaalo sàcc la léegi ku sa ku ñu teg impôt domaine ngay gis ay milliards ay millions sàccoo ko noonu ngay sàccee benn golo benn baabur bu ngas bu ñuy ah. wax aji saar. wax dañuy wax ne ñi nga xam ñooy naan traite sénégalais ñoom ñooy sàcc ñoom ñooy njaalo. Mm-hmm. buñ jël loolu di ko taf di ko taf Ousmane mu sell. Mm-hmm. xamuñu luñ bëgg ci Ousmane. donc nañu bàyyi. Ousmane Sonko wallahi azim kum ci demal élection wallahi azim midi laa la wax ñu pare ak yow. midi élection kay balaa midi Macky takk ay dëbësam ci palais bi. <laughs> leer la toogal kum ko ci séqal yàlla xam na ko bu ñu dox di waaj a dugg ci midi. carte gi leer nañ ñu xam ne Ousmane battre na la wallahi azim lu musul am élection musul am Sénégal mooy am. Mhm. quatre vingt quinze pour cent dañuy wallahi azim kum ko séqal quatre vingt quinze pour cent la lay te ñun soxlawuñ benn candidat France amul benn candidat France nii Khalifa Sall nii keneen nii keneen ak keneen benn candidat lañ soxla muy candidat Afrique mu Ousmane Sonko. Mm-hmm. il dañoo soxla liberté. dañoo soxla indépendance totale. incha allah boo bëggee dégg-dégg. incha allah keneen ku ñu Ousmane Ousmane lañ soxla mooy candidat Afrique mooy candidat sénégalais. Mm-hmm. candidat France soxlawuñ. waay. yéen tamit ngeen ba mu roo ñu toog soxlawuñ leen taxuñ ñoo jóg. Mm-hmm. Mhm. waaw maa ngi jégalu nag may ñeneen ñu yaatal dinaa duggaat gën a yaatalaat incha allah d'accord alors ñu jeexal ci yal nañu yàlla defal sutura coow yeeg ak yëngu-yëngu yeeg yal na ko yàlla dal huwa al muharrik wal musakkin yal na yàlla dalal yal na yàlla dalal te teeyal xel yi

bu ko mun naa tek fi fii uh, Dakar matin ni. Mm -hmm. di Ousmane lay ñaan ci barke borom Touba donc euh, pap tay dem nañ di Ousmane li xadi wax rek laay yeggali dem nañ di Ousmane donc. euh, ni ñu ko neexul honnêtement très honnêtement neexul les gens nous connaissent très moi, muy man muy mom. bu problème amé nit bu ñëwé ci kër gi daf ñi naan yéen de amoo leen ndoxu bët do leen joy. mais cette fois-ci le problème nous a secoué ouais ça nous a secoué bu dee dëgg rek ngeen bëgg dégg métti na et ça nous a vraiment touché ming ko commencé depuis le premier jour. Moi, je peux dire que je suis témoin. Mais là, may laaj ci hôpital bi li indi hôpital bi defe arrestation bi Donc donc dañuy toi ci arrestation bi. di justement foofu ci arrestation bi lan moo xew parce que gis nañ benn vidéo boo doon yuuxu di xaaju lan moo xew ci arrestation bi. Euh, dama yuux ndax naqar dama yuux ndax naqar.

fi ñu toog di waxtaan ma jékki-jékki ne ko maman man maa ngi dem mu ne ma doo toog ma ne ko déet bàyyi dama am rendez bi may ñëw ñu ngi pare euh, julli daanaka ci jumaa ji ma yegg si ba ci rond point boulangerie jaune bi ci berté bi ma gis oto yi ma gis na force de l'ordre ñuy dugg ci BRT bi ci biir sama fit ne rëf ma ne lu xew ba bi may jàdd ci koñ bi maa ngi yendu di xool naan est-ce que barricade waatuñu parce que nag barricade bi dafa am beneen boo xam ne dimension boo xam ne daf ñu fa yóbbu c'était très lourd. ci dellu si waat bi ñu duggee bi may dugg di gaare dama gaare jàkkaarloog Ousmane ma gis ndaw si di wax ba jékki ni loxo bi. ndaw si yoroon portable. waaw ma gis ko mu wax ba ci loxo bi ma wàcc ci oto bi bi ma wàccee rek dama jubal ci Ousmane mu ne ma dellul dañ doon jéem a filmé mais c'est bon c'est réglé mu amoon beneen waay mu nekk ci ginnaaw Ousmane bu soloon yëre bu rouge bëggoon jot ci Ousmane pour jël téléphone bi. donc garde yi di ko empêcher empêché ma mer man bi may wax ma sax kan laa waxal bi may wax xam naa ne daal le gars teint noir la lu rouge la sol ma ne ko sëñ bi ma ne ko xanaa amoo leen ay frère xanaa amo len ay sœur pourquoi cet acharnement sur sur cette personne seigne bi lan la leen Ousmane def seigne bi yërëm leen ñu Ousmane di dugg ci biir kër gi ne ma ànd duggal ma ne ko Ousmane mënu ma dugg Ousmane damay wax ak ñoom garde yi ne ma duggal ma ne leen du ma dugg bi mu duggee ma ñëw fekk ko fi mu toog mi ngi toog ak ñaar ñetti xaritam ma ne ko Ousmane mu ne ma ma ne ko dama la yërëm parce que je ne comprends pas méchanceté bi nit ñi am ci yow pourquoi cet acharnement sur sur ta personne euh, mu ne ma waay yéegal ma daal di yéeg bi ma yéegee ma tëdd balaa itu tëdd sax yegna ci iya kaw bi yegge ci kaw yendu mujj bi gardi di ma xol ci kaw di reetaan pourquoi toujours may non noonu euh Ousmane la personne bi nga xam nek mom lañuy la ci medd bi ak la personne bi nga xam mo nek ci biir kërëm du ben Ousmane du nitu fitna Ousmane du nitu coow Ousmane du xuloo te defena nek nekk mën témoigner ñun jigéen ñi dañuy xuloo rek Ousmane boy xuloo moom day génn wala mu noppi naan la waa baax na suñu ay doom seen papa la ñu gën a jege ñun ñooy yar Ousmane du yar donc du coup loolu yëpp dama xalaat pourquoi pourquoi ñuy def lii sur cette personne alors que cette personne ne mérite pas ça gëm naa yàlla de xam naa nekk ndogalu suñu borom dafa am te suñu borom bu lu bëggee il t'éprouve mais am na lenn loo xam ne dafa métti ma tëdd di law bi ma tëddee euh, il était quinze heures yooyu noonu di seize heures sama jànk bi ñëw fëgg tata ñu ngi ñëw jël si ñu ngi ñëw jël si mambay ma ne ban mambay lu mambay def mu ne ma mbay la ñuy ñëw jël si ma ne ko lu lu xew quand il a dit xam naa nekk moom ko yëgul li xew mais man nekk Ousmane a ngi gët sama xol fees torop ma wiiri dem taxaw ci balcon bi bi ma taxaw ci balcon bi di leen xool ñoom ñu ngi sone gendarmerie ñu ngi sone bëri nañ euh, ils étaient tous là ils étaient tous là bi may yëndu ñu ngi may gis donc ñoom ñu ngi koy waxante ci seen gis donc ñoom ñu ngi koy waxante ci seen biir mais man fi ma taxaw maa ngi fa taxaw parce que amna fenn fo xam bo boo fa tollo ci injustice da ngay naan na nañ ma naa naa dem rek ben yoon instant bi fouf la tolloon parce que j'étais à bout parce que mënuma won gëm comprendre injustice bi man injustice dama ko mës xex sama aduna ba à l'école on m'appelait l'avocat des élèves paak noonu Ousmane Yek, man na dem xoolaat sama néeg bi di xol ndax gendarme yaa ngi fa ma gis leen ñu yoré sen

fekk ko ci néegu xadi man bi may wàcc fekk na Ousmane ñu ngi koy génnee et ça m'a fait beaucoup mal ça m'a fait beaucoup mal comme ñun ñëpp d'ailleurs dans la maison bu ñuy toog di waxtaan ba si yàgg dañuy naan nekk la maison est vide sans Ousmane la maison est vide sans Ousmane ñu gàddu yóbbu Sébikotane ñun jotuñu ko gis Sébikotane

Euh, dañu doon xaar déjà permis yi dañ doon xaar pour mu parce que nous dañu naroon dañu nekkoon permis spécial mm-hmm. parce que permis ñu c'était uniquement les mardis et les vendredis donc ñun le temps que ñuy lijjanti loolu Ousmane def na malaise sibikotan ñu gardons ko yóbbu principal bi muy principal il a fait un ben, euh, malaise avec hypoglycémie à 0,58. 0,58 waaw. hypoglycémie ñëpp xam nañ ko. Sucre moo parce que boobu une grève de la faim. boobu une grève de la faim. waaw. hypo kon waaw. hypo kon boo ne euh, us ministre de la justice le président Ismaël Major Fall mu ne musul grève de la faim comment se fait-il que musul grève de la faim l'hypoglycémie hypoglycémie bañ koy évacuer. Pape ñu mëna tontu ci lool rek moy Ousmane Gor la. bu nek kaddom la am. te du wax dara luy teggee ko. def naa nekk looloo koy lor sax ci lu bëri. Ousmane quand il te dit c'est bleu c'est bleu. quand il te dit c'est vert c'est vert. ñun de bi mu fa duggee ba tey ah defe naa du man du xadi de amul kenn koo xam. xam ne nekk jot na ko fee toggal amul kenn koo xam ne nekk jox jot na ko jox mu lekk. Mm-hmm. et tout le monde du lekk fenn fu du këram. Ousmane du lekk fenn fu dul këram Ousmane du dem restaurant Ousmane doo ko invité sax pour mu lekk problème la les rares fois où muy dem fenn di lekk kooku da ko ne rek woo sa jabar comme ça mu woote bu wootee ma ne ko ayte waa jox nañ la autorisation Ousmane lekkul. Mm-hmm. lekkul.

li si gën a métti mooy nga nekk ci hôpital te nekkoo si c'est très difficile. Madame. ñun keroog bañ fa demee rek pour cet Ousmane on est resté pendant une heure de temps premier jour bi parce qu'il faut qu'on attende des instructions ak yooyu noonu donc. Euh, dégg naa léegi dafa am scanner rek lu ne pour nga gis Ousmane c'est difficile. ouais. deuxième fois bi bi ñu ñëwee nañ ñu ñu jall dañu ñëw ñu ne waaw c'est bon pour vous ay ba ñëwé ñu contrôler ñu contrôlé ñu ñu nangu bi ñu ñëwee à notre grande surprise euh néeg bañ ko dugaloon ñu génné ko ko dugal ko benen néeg hmm ni ko lu xew lu tax ñu changé la nekk mu ne non fii baax na ma ne ko waa mais fii la y avait beaucoup plus de commodité nan moo tax ñu indi la fii ma ne fii baax na bi ngay ñëw tu étais à zéro cinquante huit fan la sa suukar toll mu ne ma avant-hier j'étais à zéro quarante six c'était le mardi hypoglycémie mhm. sévère mu toogaat mu ma mais la mi ngi yéeg tuuti je suis à 0,57 ma ne ko d' accord c' est bon baax na on est parti heure bu ñu fay génn nag on part avec le cœur très lourd très lourd ba tey lañ fa xëyaat dellu réanimation ñun ci réseaux sociaux yi lañ ko yëgee. waxuñu leen ko yéen famille. kenn waxuñu ñu ko kenn waxuñu ko ci réseaux sociaux yi lañ ko yëgee.

boobu ñoom dañ taxawoon ci tànk yóbbu ko euh, réanimation génne ko pavillon bi mu nekkoon pavillon Teranga. Mm-hmm. chaque minute ñi ci di jaabante ñi ci di jaabante ñi ci di jaabante ñi ci di dem di ñëw mujj bi mu ne leen sama bopp day métti may leen ma ba suba. demain le matin incha allah dinaa xëy ma dem et je vais accepter les soins parce que dafa arrêté woon soins yi carrément ñooñu ne ko d' accord malheureusement à deux heures du matin mu malaise bi mu malaise à 2 heures du matin heure lañ ko ko. réanimation ko réanimation. may biñ ko pour yóbbu woon ko réanimation foofu lañ ko donc euh, on n'a même pas les mots en fait cette affaire nous dépasse cette affaire, cette affaire nous dépasse. Et aujourd'hui. Sa vie est-elle en danger Rien que Parce que moi, j'ai insuffisance rénale. Est-ce que a un médecin pour tok waxtan ak yeen on a communiqué avec euh, le médecin, son médecin traitant toujours docteur Mais euh, Cissé. Mais venu démé tay à l'hôpital, médecin bi nekk réanimation dafa génnoon euh, Ousmane il avait commencé à faire une insuffisance rénale donc les résultats yi génnee rein yi ngi doon commencé wu di mais hypoglycémie bi moo sonal mais actuellement à l'heure que je vous parle il me dit que côté gauche il il commence à ne plus le sentir Hmm. nee na ma sama côté gauche bi day mel ni amul benn mouvement duma ko du ma ko yëg temps yi di sax dama ko dama ko ne bon bàyyi loolu léegi léegi léegi mu jàll juste pour ne pas wan ko ne que am nañ tiit mais si tiit nañu tiit nañu et sa situation est alarmante sa situation est alarmante

du pour tous les détenus. Aujourd'hui, on est à 1020 détenus. 1020 détenus. Cher Bara, nous sommes côté Ousmane. Annibal, hmm. Hannibal, nous sommes côté Ousmane. Même on est Jay. Même on est, c'est une maman. Yay là! Et tout le monde sait que Maïmouna, elle est malade depuis des années. Donc, nous, dimbali ñu ci loolu ñu ngi ñu dimbali ñu ci et pas bu may ñaan je vais demander ça à la première dame je m'adresse à elle dama koy ñaan euh, mooy ndey ji réew yërmande laa koy ñaan ku jur yërëm Hmm. et actuellement les xale vivent dans les prisons maintenant. Les li vivent dans les prisons maintenant. et comme on dit il n'y a jamais eu de révolution sans évolution xale yi bëgguñu justice la un Sénégal meilleur Sénégal doit ramener le développement lay dem donc je demande à la première dame en tant que tigène en tant que maman en tant que yai, en tant que ndey mu les yi ñu génn na xalé yi génn borom kër nekk foofu nañu génn seen njaboot Nous nañu jigéen yi ñu jàpp notre très chère maman Amidia ak ñeneen ak ñeneen nañu génnee ñëpp donc ça c'est un appel de paix un appel de paix Sénégal dañu bëgg jàmm ci réew mi ak foo mënti nekk parti boo mënti bokk parti boo mënti bokk qu'on arrête la violence Acte parti amé sax des débats d'idées Qui ne leader la def leader on veut retrouver le Sénégal devant. parce qu'actuellement, qu'on le dise ou pas les cœurs sont lourds qu'on le dise ou pas les gens sont tristes donc nous ngi ñaan nous borom bi def mais Bagana. 56 jours Len bari ke soxna Xadi mooy wax wala yow yaay wax 56 jours ana joxal ma soxna Xadi Pape Alé sa baat bi changé na affaire bi tamit the, and the April Sure. Internet, mais qu'est-ce qui kenn kenn du jóg visité ñu. nu yàlla lu mel nii. bu Sonko di engagé wu en politique ngeen xalaat lu mel nii ne na am ci réewum Sénégal. Pape dama jox benn anecdote je me suis mariée en 2002 avec Ousmane Comment sais, xam xam ma famille je est fi dëkk rek xam nañ ni ñu bëgg politique mais moi je me suis jamais intéressée à cela Nous sommes ci une famille. en 2017 Ousmane a dem déposé pour de député musu woon intéressé donc Ousmane di dugg ci politique bi aussi même chose dama ko ci doon chaque fois ni ko Ousmane di jaru dara jaru ko fi parce que bon gisoon naa Kébémer ak ndand seen am tiraillement yi daan am donc dama ni lii dara jaru ko ci àdduna mais bu ma demee ba Ousmane impliqué wu ci bu baax a baax a baax laa gis loo xamante ne mosuma ko gis sama àdduna mosuma ko gis si mais nag bon xëy na mentalité yi changé mais tamit mentalité dina gën a changé waat tamit parce que nag li ñu teg ñi ñu ko teg ñoom xam nañu xel ñoom attanuñ ko. mais mhm. dañuy ñaan yàlla nag yàlla yaatal suñu dënd bi nag ba li ñuy teg ñu mun koo muñ mais rek dañ la koo tegul. dëgg la ay je ñu dem ci Anna Anna cinquante six jours yi alors noo ko dundee parce que mas nañ ci wax même jour dama ñëw fii di traumatisme rek la ñu am traumatisme. Euh, difficile ah mooy li Khady rek. ma ne ko di baalu ak euh, sunu voisin yi ñu leen di baalu ak bu baax a baax a baax a baax parce que ñoom li ñuy barricade sax ñoom mënoon nañoo yem ci buntu kër gi rek. épargne waaw ma ñeneen ñi. Euh, Pape li mu si gën a métti mooy li xale wax rek xale yi la. Mm-hmm. gis na ñoom ànd bi taxawoon foofu foofu la xale yi di footballé chaque ngoon donc man waxuma suñu doom yi ñun kese de waaye xale yi ci koñ sax génnatuñu woon footballé.

day ne tout le temps bu ma génnee damay euh, xulo ak policiers yi bu ñuy génn ñu ñuy fuyee c'est tellement dur c'est tellement difficile. et eh, indécent aussi. Euh, parce que dama ne nekk li manque de respect mënu weesu lii ba dama ko wax benn agent ma ne ko bu keroog yow man xiyaame yàlla nañ daje àjjana ñuy xoolante mu ne amiin mu duggaat sama oto bi ma demee ba xam ne nekk il faut qu'on accepter que, parce qu'en fait, j'arrivais pas à accepter en fait le fait qu'on soit barricadé. J'arrivais pas à accepter le fait que les enfants, même pour partir à l'école, problème, le premier jour de l'école, école parce que à l'entrée et à la sortie donc bu ma yegsi dama am sama benn xarit boo xam ne moo ngi wàcc damay waxtaan ak moom reetaan genre affaire yooyu bu ma yegsee ba foofu rek ma ne ko yegsi naa frontière loolu moom ma doon soulagé bu ma yegsi ñu yegsee ba foofu euh, moo xool benn jour benn policier de je crois ma ne ko suñu sëy lay tas parce que en fait instant boobu c'était juste pour détendre un peu l'atmosphère parce que ils étaient là mais nous disons seen ils étaient gênés Nous ci seen ils étaient gênés parce qu'ils ont des sœurs am nañu yaay am nañ ay donc nous xam nous nous luñ doon supporter c'était très difficile très difficile moi honnêtement ça fait trois ou quatre mois que je ne nekk Je concentré wu liggéey carrément non ne nous concentre pas. parce que nous ne

ba ci deux mille vingt trois lan moo nekkoon force mentale am yéen la woon wala lan la parce que lu ñëpp ko mën a dégg loolu da ngeen ko dégg loolu da ngeen ko wax um gën a ñaaree waxal nañ ko Ousmane lan moo nekkoon force mentale am dafa am euh,

دار لوكا فيكي داره داره داره داره عمرو ما يفيكي وصلنا يرمان لي بيمو ام سي ديغين وصلنا بروحي صافي شحال لابريسيون كل في فلاراغال الوغ كو نو دونك سي بيرسون من يوم يعرف لي ولا يوم يعرف لي نوبي نوبي نوبي جميل سما بين خريب نيما انا اللي نجي عثمان نهدق له

déedéet ma ne ko kon nañ dem nga tooñ yow lay faral nga ñàkk a tooñ lay faral mhm. lii nii on va le faire ensemble et incha allah suñu borom dinañu ci mbay lam seen borom may na leen ci ndam moo tax ñu sant yàlla Pape moo tax ñu sant yàlla bi ñu suñu borom mayee ndam dama sant yàlla parce que bi problème bi di am moi ma fille elle avait cinq ans donc da ko doon xool nii ci internet bi mhm.

Elle, est toujours posée. c'est normal mm-hmm. mais pas il le début 2023 deux mille vingt et un deux mille vingt trois beaucoup de mais tu Ousmane un homme violent.

par rapport ak Ousmane bi nekk ci kër vingt-deux ans de mariage Ousmane musul rendi xar bu tabaskeem musul rendi xar tabaskeem je me euh, deuxième gosse bi mu juddoo kër gi ñu dëkkoon bi si topp terrain vide la woon mhm. ñu toog ay timis rek daw si dugg fekk tëju ma sama bunt ne fi dafa génn ndànk néeg bi ñu leen du ma rey kaña gaayam mi copain mënul gis deret mënu ko koo xamante ni nii xamul def lu bon franchement xamul xamalu xamaluma ko te wu ko wu ko aussi mm-hmm. Ousmane nit ku duus la Ousmane boo waxat moom boo sa mbaat sax nga gis mu noppi pare ci bon entre copain bi nag ku ko ku ko fekk ak ay copain nag danga kii ak Ousmane bi nekk toog ci meeting bi wala kuy toog di def live bokkul day toog malak man dañ ko gàtt suñu gauche yi la suñu gauche yi foofu laa jëm boo ko fekkee ay copain day toog kafre def yooyu zëmbale def ay affaire am mais nag nit la paap. nit ki duñ ko sës koo xamante ni force mu génnee jikkoom te même bu nekk noonu jikkoom il faut mu aabi jikko aussi tamit nag. Ousmane dañ ko sës ci miir bi dafa sës mais nag kenn déggu ko mu jooy kenn déggu wax wax bu musuma dégg Ousmane fu mu insulté ba doomam mi mu jur musu cee yëkkati baat wax la wax bu ñaaw ñun kay ñun jigéen ci ñu ci kër gi di wax xale yi di yuuxu ak di goronte affaire yooyu muy jamais xale ku ci def bêtise da lay woo ba muy ñëw soxtaane ak boo paree may la xaalis kooku muy Ousmane ak njabootam nit ku dal yéen lu lu lu am nag ñoo yaa ko ci loxoom muy ku mu bokkal ak ku mu bokkal lu am joxe ko. en deux mille cinq un jour dañoo toog di waxtaan ñu jot seen fonk commun yi affaire yi demee noonu man ko Ousmane man dag maa jaaxal fonctionnaire bu mel ni yow te amoo compte bancaire ci yow laa ko gis en sa épargne am naa épargne kay sama njaboot mënuma lépp lu ma suñu borom di may te bokkuma kaak samay mbok ak samay am di jàmm yàlla bu ma ko yàlla may fonds commun bu jotaan mujj gi man la koy jox maa koy dencal chaque jour mu ñëw yëkkati jël dem dem dem kon kooku tey jii mënuñu toogee naan dafa violent dafa violent daf ma yéem daal bëggul gis dara lu naqari bëggul gis dara dara dara lu naqari foo xamante ni fitna am na fi sax ga gis mu ñëw nee naa ko sapeur pompier nga xamul lu condition yi ko teg. le moo tax. aussi on est obligé de se défendre. déggoo parce que nit ki tàccu chaque jour chaque jour injustice ci kaw injustice privé sa lépp nag amatoo droit ci dëkk bi dafa metti dafa metti may jàll aussi il faut ma remercier suñu voisin yi ñu dëkkal ci cité kër góor gi bi gis nga boo doxee ba dajee ci kenn ni ko ah soxna si wala monsieur baal leen ñu àq de gis ngeen de barricade bi ñëpp fitna bi bi ñu teg ñun la madame ñun ñëpp ñoo ko bokk parce que xam nañ cause bi tax si ñu def ñu ko te cause boobu ñun ñëpp ci ànd kon loolu ak bu ñuy saluer la ci waa cité kër góor gi dëkkandoo yu mel nii daw fu ne ñëw am dëkkandoo yu mel nii kenn amul seen fay. kenn amul seen fay boole seen nag di lay encouragé guddeeg bëccëg madame jàppale leen seen jëkkër jàppale leen seen jëkkër. kon nit ñu baax ñu mën na bu doon bu doon leneen mën nañu génn tey def sitting ñu non en en a marre la wala mu dem feneen te boobaa bon ñëpp dañuy comprendre aussi ñoom it dañoo sonn. faj bi ku ne la sonal am na ñëpp a sonn bi ku ko jegewul rek moo wa wax. est-ce que viol nekkul de l'autre côté defe naa. <laughs> violence vraiment de l'autre côté. waaw foofu parce que bëgg na gis sama bi statut bi comme li dox après moo ko comment tu nga def nii mun maman fi laajte koo fi laajte ñu koo laajte ñu ne nañ ko. gis que dem nañ ba ñi kon loolu def nañ defe nañ ni kon droit la wala devoir la boo xamante ni koo xamante ni yow bokk wala jege nga Ousmane Sonko dañ la war a jàpp